defee di nuyu Serigne Mountakha al xalifatul am li taifa al muridiya di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di nuyu al xalifa Serigne Babacar Sy Mansour te di ko ñaanal moom itam mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax dundam njariñ rek la ñoom ñaar ñooñu laay teg nuyu bi seen loxo nag ñu joxal ñu ko bépp xalif bu nekk ci biir réew mi di ñëw Thiès nag ni koy faral di waxee di nuyu sagu Thiès ki nga xam ne tey jotaay bii moo ko Serigne Saliou Touré di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd wér ndax itam dundam njariñ rek la waaw di ko ñaanal bu baax a baax a baax waaw moom lu mu fi gën a yàgg mu gën a baax waaw lu mu gën a wér mu gën a baax ndax man mii biir na ma ni bëri na lu ñu borom bi rusee Serigne Saliou Touré tax loolu moom amuma ci werante waaw amu amuma ci werante wallaay ndeysaan bu ko defee di ko ñaanal bu baax a baax nag di nuyu waa kër gi yëpp Serigne Cheikh Touré nga xam ne mooy taaw euh, di ko nuyu euh, jot nañu bu baax a baax euh, mbégte mi nga xam ne am ngeen ko ci émission bëri génn yàlla xam na ko Ahmed Saloum Dieng woo na ma wax ma mbégte bi ngeen ci am yéen ñëpp bu ko defee Serigne Saliou Kañ euh, Serigne Saliou Kanji aussi maa ngi koy ziar Serigne Saliou Mbenn nga xam ni waxtaan bii ma doon def ci woy juróom bii euh, yu ci ëpp ci moom laa ko jëlee moom nag maa ngi koy ziar suma xarit la suma Serigne da namm naa ko lool ah, di nuyu ñoom sëñ Sidi Gadiaga jëriñ maa ngi koy ziar bu baax aussi bu ko defee euh, di nuyu alxalifa Serigne Mounirou Ndiogène ndeysaan di ko nuyu bu baax a baax di nuyu nag Serigne Babacar Ndiogène ndax keroog dafa amoon tudd ndeysaan ma dem fa xalif bi bég kontaan ndeysaan ni ni ma sopp nga ma waaye maa la gën a sopp waaw di wax ni nim ñuy bàyyee xel euh, te ñooñu rek ku ñuy bàyyi xel rek tew féex la waaw alxalifa kon bëgg nañ lool kontaan nañu yàlla xam na ko di la ñaanal nga gën fi ak gën a wér euh, di nuyu Serigne Khadim Lo Gaydel borom daam ah, di nuyu euh, monseigneur André Guèye di évêque bu Thiès borom taxi yi taximan yi nga xam ni yéen fi mu toll nii yéen a ngi déglu 92 point 3 di bàyyi xel émission bii di sunu roy di ci ànd ak Pape ah ak yow moomu borom taxi bi ak ki nga xam ne moo ne ci taxi bi fu ngeen li ngeen bëgg yéen ko xam yàlla na leen ko borom mi defal ah ngi bëgg ci yéen yéen ñi nga xam nag yéen a nekk ah. ngeen bu ngeen di dem ville wala ngeen di dem fayu fu ngeen mën a dem yow mi ne ci tata bi ah, euh, maa ngi lay ñaanal lépp lu tax nga jug bay dem yal na sotti yow mi nga xam ne nag yaay chauffeur bi te jàpp 92 point 3 day bàyyi xel émission yi waaw maa ngi lay ñaanal yàlla nga am sa fi bopp waxal amin waaw waxal amin na ko ñëpp dégg waaw di ñaanal nag ki nga xam ne mooy receveur bi yow moom nga xam ne yaa toog di jël ñaar fukki yeeg fanweer yeeg ñeen fukki yi waaw ah yow miy dagg ticket yi ah, nga xam naa ni fi mu toll nii may wax nii am na ko la jox ñaar fukk wala 200 wala wala 250 je pense que amu ci sax ah yàlla na nga am yow it sa yëfu bopp waaw yàlla na nga am sa yëfu bopp yàlla na nga am tawféex am ju rëy ah bu ko defee euh, di leen bëggee nag borom bitig yi bàyyiwuma kenn gaa yi ñuy bëggee yëpp yëpp maa ngi leen di bëggee di leen ñaanal waaw spécial Serigne Saliou Touré waaw xale yi jël ci leçon rek waaw bu ko defee damay jox masko ki mu nuyoo euh, après nag ma waxtaan ak xale yi nga xam ne nag bac bi génn na résultat yi génn euh, ndeysaan am na ñu amul euh, démb am na xale bu ma woon ni ma dama lay déglu suñu roy waay dama damaa découragé nag waaw Pape dama lay déglu waaye wax dëgg fa yàlla damaa ndax li ma daj ci bag bi te aw ma metti na ma lool waaye nag xaaral nga déglu ma tuuti rek ma am lu ma la wax dégg nga hmm. bu ko defee nga nga bul découragé waaw am na ñoo xam ni jaar nañu fu gën a metti foofu découragé wu ñu borom bi dafa leen tawféex waaw mi ngi noonu ay ca maas maa ngi lay ziar. waaw maa lay fay maa ngi lay nuyu di la ziar. Mhm. di leen ndokkee lu baax a baax. jërëjëf. Euh, baax na bismillahi mina shaytaani rajim. Mhm. rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Mhm. wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. yoxatal imaan fi kulli makaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Pape nuyoo boobu nekk juróomi baat yoo xam ne yu sell la yu gën gën a mag ci nga xam ne mooy ci nuyoo yi. di ko nuyu ñëpp rek macha allah ñi xam ñoo ñuy bàyyi xel 92 euh, point 3 ak ñi nga xam ñoo ñuy dégloo 3W sama FM point point net ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax Pape. Mm-hmm, mm-hmm. di nuyu DG Eugène technique bi moom ak ak Aziz. Mm-hmm. ah ñu leen di bëggee di leen baax a baax. di nuyu ko nuyu bu baax di nuyu président Sidaat di social naa leen nuyu di leen ziar waa di social bi yëpp ñu leen di bëggee di leen ziar. di nuyu waa Timbuña aussi tamit vraiment maa leen di bëggee di leen ziar bu baax a baax macha allah Pape ci noonu la ci laay nuyoo ñi nga xam ne mooy auditeurs yi ak auditrices yi nga xam ne ñoo nekk fii nga xam ne sama fm point net mhm. di leen ziar baax a baax a baax Pape comme ni ko waxee rek mhm. waa ligne ba 1 ba 10 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar a baax ak clando yi nga xam ne ñooy daw diggante Ersan ak fi nga xam ñi nga xam ne moom mooy fi nga xam ne mooy may ñu ngi leen a baax waaye leen di bëggee di leen ziar ndax Pape émission suñu ma suñu royu waaye dañ koy déglu bu baax a baax mhm. waaye Pape ci noonu laa di waa marché yëpp ah mhm. marché yi nekk Thiès yëpp ñu leen di bëggee gars yi dañuy bàyyi xel bu baax a baax mhm. surtout ñi xam ñu téere ñu ngi leen di bëggee ku si mel ne la waa Lampal Couture nekk fële ci marché Moussante ñu ngi leen di bëggee di leen jaar bu baax baax pap mhm. di nuyu suñu ñaari jigéen nga xam ne ñoo nekk anga suñu fàllu muy di aram ak nga xam ne mooy awa ah, ah ñoom di bëggee di ah, leen a baax di ñaan borom bi ne ñoo ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Touré Touré Balla mhm. ah mu ñaan yàlla yàlla guddal fanam pap mu nekk koo xam ni pap euh, li muy liggéey ci lislaam pap ñi mhm. ñaan borom bi yàlla na koy euh, yàlla bàyyi suñu kanam bu baax a baax a baax mhm. ndax taalibe yi nga xam ni produit la ko fi nga xam ne ci Thiès pap mu nga gis ni boo demee gis gars yi ni amee taalibe macha allah ak pëste bi nga xam ne ànd nañ ko mhm. loolu lépp rek mu ngi jaar ci xam ne mooy ci Serigne Saliou Touré Touré Balla di ñaanal njabootam gi yëpp di ñaanal borom def leen tawféex mhm. Pape incha comme ci euh, ñi nga xam ne ñoo am waaye di encouragé ñi nga xam ne tamit àdduna moom loolu moo fi am rek mhm. da ngay def li nga war def rek li des nga bàyyi ko borom bi mhm. donte ñi nga xam ne nag am nan di leen félicité bu baax a baax a baax muy nekkul seenu njàmbaar goo tax yàlla may leen ko waaye ñi nga xam ne Pape ñi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk nekkul ñàkk fayda goo xam ni borom bi xañ leen ko mhm. kon donc rek xëccoo la woon rek jongante moom a demee noonu rek kii day am kii ñàkk donc comme li yàlla def rek nga xam ni loolu moo gën ndax julli day nungu li nga xam ne moom mooy dogali ndax borom bi muy wax ci moo wax di bànneex muy wax naan képp koo xam ni nungul sama dogali pap na génn sama roon asamaan waaye pap yàlla bu ñu génn roon asamaan fu ñu jëm mhm. kon ngi noonu pap mhm. di leen euh, encore une fois

yàlla na fi li mu gën a yàgg gën a baax borom bi defal ko teraanga mhm. yaa ma gën a xam waaw Ouz le roi aussi suma suma suma DG di ko bëggee sama xarit ah juste play waaw ñoom yëpp maa ngi leen di bëggee waaw bu ko defee itam mhm. xam nga nag kuy xalam du ca jaayu waaw xam nga waaw nga Pape mii taxaw di wax itam mhm. daa bokk ci mouvement bu nuy wax gëm sa bopp waaw ah? Ah, waaw kay ah gëm sa bopp <laughs> waaw nekk nekk nga xam ne nag mooy coordonner les jeunes les jeunes de dire waaw kay bu ko defee suba xam nga euh, euh, comme mbas mi mi ngi fi. Mhm. dañuy def euh, li ñu ko tuddee dox boo xam ni. Mhm. dañuy jëm waxtaan ak nit ñi. Mhm. ñu def ay don de masque wax gars yi ni leen nag nañu takk masque yi uh-huh. sensibiliser leen bu ko defee loolu nag jeune leader yi semaine bi monsieur le maire xam naa Alioune Sow maa koy invité moom mu ñëw ànd ak ñun ci convoi bi comprendre nga bu ko defee jeune leader yi nga xam ni Souleymane moom mooy coordonné mhm. zone ouest mhm. euh, di invité ñëpp ni suba mhm. ñun ñii les jeunes leaders incha allahu rabbi ànd kook Pape Thioune bu 9h jotee jàpp 10h incha allah dinañ ñëw marché Grand waxtaan ak waa marché ba def don masque xool nag waxtaan ak gars yi pour ñu respecter les mesures barrières gën a bàyyi xel que ni mbas mi mi ngi fi surtout bu ko defee suñu paree euh, foofu suba ci samdi bi 9 onze heures ña nga jubali euh, garage mhm. kon waa garage Dakar yëpp na ngeen na ngeen ma xaar mhm. ma ànd ak sama équipe jeune gëm sa bopp yi ñu waxtaan ak yéen ah waaw waaw waaw sottante xalaat def ma euh, benn nu ma ko mën a tuddee ñu ñu bàyyi bàyyiwaat xel nii rek mbas mi mi ngi fi mhm. bu ko defee ñu ngi koy yëgal ñëpp waaw képp ko xam ne rek disponible nga ñu ngi lay invité suba bu bu bu bu 9 heures jotee ñun ñëpp ñu dajee fële ci jàkk yi murit waaw buntu jàkk yi murit mhm. waaw jàkk yi murit mooy fii côté kër Sëñ Saliou Touré ñu ngi jox rendez-vous foofu ñëpp bépp jeune rek boo xam ni pare nga pour ñëw bokk ak ñun affaire bi ñu ngi lay invité képp ku sopp Pape Thioune aussi maa ngi lay invité mhm. ngeen ñëw incha allah suba bu 9h jotee ñu dugg marché Grand Thiès sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñoom waaye tamit dem garage Dakar sensibiliser nit ñi waxtaan ak ñoom bu ko defee waaw waaw comprendre nga ñoom ñoom ñoom Tafsir gars yi ñu ngi ni bëggee waaw ñoom Tafsir Seydou Diop ah mhm. gars yi ñu ni bëggee Mor Sen 24 maa lay bëggee bu baax baax cameraman maa ngi maa ngi lay bëggee ci bàyyi xel gi mhm. jaajëf bu ko defee Mahmoud aussi nee na mi ngi ñu bàyyi xel Mahmoud kii mhm. moom euh, ma lay ni baax nee na mi ngi ñu ziar bu baax a baax waa Zik FM waaw nee na émission vendredi yi ngay def moom dafa am solo lool am na solo euh, trop macha allah yal na la yàlla aar yal na la yàlla musal di euh, ci lépp lu bon yal na la yàlla mu ne yow yàlla na yàlla eh, gën a yokk xéewal yi pap Thioune jërëjëf ma lay nii amiin incha allah ma lay nii man nit sopp naa la bu baax a baax salut Pape rappeurs yi dañu lay déglu de <laughs> rappeurs yi <laughs> ligne ligne 2 Bas Bas Cité Senghor waa ligne 2 la Bas Cité Senghor waa man it damay déglu rappeurs yi di man nag ki ma daan déglu nawatu fi ndeysaan muy pakoti pakoti damaa moo ko doon wayam yëpp Cheikhouna Dieng marche Moussante mu ngi déglu aussi di ñu bàyyi euh, ko defee salut Pape naa la de Babacar John Medina Fall maa ngi teewlu bu ko defee gars yi teewlu yëpp nag maa ngi leen di bëggee ah Omar Fall Omar Fall jaajëf bëgg naa ci yow nee na maa ngi leen di déglu di la bëggee di nuyu Serigne Cheikh ak mbooleem njaboot gi guddal fan yow amin incha allah Omar Fall mami jaajëfati bu ko defee euh, euh, Fat Kiné jaara ah, jaara soxna jaara soxna jaara njaay ndeysaan nee na bàyyi lépp euh, waaw nee na bàyyi na lépp fas yéene yéene déglu li may li may waaj a wax waaw kay ndeysaan ci Serigne Saliou Touré nee na nga xam ni sama karaw yi bàkkan la ndeysaan ah kon day maa ngi tàmbali léegi Baye Sidi nee na moom it ñi ngi teewlu waaw nee na ñi ngi teewlu ñoom ñëpp waaw maa ngi def wax ak nag dama balaa ma dugg ci suma thème bi ma wax ak gars yi def bac xam nga émission bi ndaw ñi ñoo ko moom hmm. jaari ka cité Senghor jaari ka ndaw ñi ñoo moom émission bi ñoom ñoo tax may def émission bi nii bu ngeen gisee ni ma koy defee sax lu ci ëpp sax du may faral sax di ñëw ci ci aspect religieux bi nga xam ni moom la suñu mag ñi di def waaye di ñëw ci li nga xam ni mooy aspect bi nga xam ni mooy ni ni ñuy entreprendre

échouer lu baax la c'est inévitable. Mhm. mais abandonner c'est impardonnable. Mhm. dafa am ben journaliste bu ñuy wax Michael Guasit soxna jara jara Ndiaye Michael Gouassit la tudd. Mhm. ndeysaan euh, c'est un journaliste martiniquais. ku rafet sax amon tar bu ngeen duggé sur Google wala YouTube di ngeen ko fa gis ngeen def Michael Guasit yeen ñi nga xam ne ñu doon def bac. Mass neena dafa tëdd mom guddi mu gént neena na def accident.

nee na bi moom déggul lu dul tell choc bi li mu ci fàttaliku mooy dafa tourné gis benn loxo baa ngi fële. ndeysaan nee na mu tourné loxo ndajoor bi moom mel ni lu nee na mu gis tànk bi moom dagg nekk fële nee na loolu rek la ci fàttaliku mu nekk ci coma ndeysaan ñu yóbbu ko hôpital mu def weer di nelaw rek moom Michael Gossett nek dans le comment. ku amone alal la mhm. nee alal ji yëpp dem ci feebar bi mhm. soxnam bayiko mhm. ngir feebar bi ni mel soxnam dem bayiko. Domi bayiko yi Michael na nek ci sama salle bi may nek manam besoin naturel yi nga xamni nit da koy def duma am kuma dimbali ma wéet ñëpp dem bayima sama xarit yi bayima ñëpp nee na ne ci bi ma sama benn loxo bi nga xam dañ na nañ ko. Mhm. sama benn tànk bi dañ. ma ni man loxo ak ma découragé def na 36 interventions chirurgicales 36 opérations mhm. moom Michael Gossid plus de deux ans. Mhm. mu nekk ci rééducation maanaam moom wax na ni. feebar bi en tout li ci 15 ans. di souffrir waaw ku ñu dagg sa benn loxo dagg sa benn tànk c'est extra c'est extra c'est c'est extraordinaire wallaay wallaay ndeysaan nee na bi mu tëddee ci lalu hôpital bi mm-hmm. mu découragé ci àdduna mm-hmm. mu ni man day sama jabar bàyyi na ma ndax li ma feebar sama xaalis jeex <laughs> ndax li ma li ma feebar fajoo dem nañu ndax sama doom mëntuñu ma leen gérer samay xarit aussi gisatuma leen ñoom bàyyi nañ ndax intérêt la ma toppee waaw Mhm. nee na mu wét nag mhm. nee na sama xel nag ma ni man amatuma espoir ci dund gi mhm. suma dund amatul njariñ man mënatuma tekki parce que amatuma benn loxo amatuma benn tànk man mënatuma tekki naa xaar dee rek naa xaar dee day sànn mu jékki-jékki nee na bi muy xalaat loolu mel ni am na lu ko waxi wax ni ko bul saalit mukk parce que amna lo xamni moy li gëna essentiel ci dundu doomu adama ci doomu adama bi ta borom bi mi ngi ko bàyyi ak yow ta amna ño xamni soxla won nañ ko borom bi xagn leen ko muy lan muy xel al aql sa xel parce que doomu adama lépp lu mu meuna réaliser ci aduna xéram la ko xaatee soo ko réaliser wallahi bo amul kay soti hein wallahi dof bi nga xamni moy moy lek ñamu mam bi def yaramone di génn xel ma fa nekkatul di waxtu ci mbedd yi waaw non Michael Guassi daal ni daal di daal di jug nee na mu daal di jug wéeru daal di sant borom bi daal ni ko borom bi xañ nga ma loxo xañ nga ma tànk waaye jox nga ma li gën a am solo ci nit muy xel te yàlla heure bi wax borom xel yi lay waxal Michael Guassi daal ni kon du ma tëddati du ma am désespoir li mm-hmm. ulul albab waaw mm-hmm. comme maa ngi xel mi mm-hmm. li ma amoon yëpp dina dellusiwaat nee na nag mu def ci Pastef mu def ci taxawaay law kaana himmatul insaan fi suraaya la nadatu yitte doomu aadama su nekkoon ci dem ba ca biddaw ba gën a sori mu yegg fa ku am yitte mhm. ku am taxawaay loo bëgg mën nga ko réaliser nee nag mu commencé nag nekk ci mhm. di góor góorlu mhm. maas fi mooy waxee ak yow nii taxawal na juróom-ñaari entreprise yëpp ngi dox moom Michael Guassi waaw fi may waxee ak yow nii fi waxee yow nii foofu ca Martinique bokk na ci ñi fa ëpp xaalis fi may waxee ak yow nii dem na ba ci montagne bi gën kawe mhm. ca Martinique mhm. mu yéeg fa mhm. nan la def dafa teg ay pexe woo ay xaritam ñu jàppale ko mu yor séesam ñu jàppale ko ñii di ñii ñi ñu tingom ko ñu ànd di yéeg di yéeg ba ca sommet montagne bi mu teg fa chaise lant boobu lan lay wane mooy nit ki amoo excuse ci àdduna lu mu metti metti lu échec yi bari bari bu mu tax nga découragé kooku mooy Michael Gosin ana soxnaam si demoon rëccuwul. rëccuwul na fi mu toll nii bokk na ci ñi ëpp teraanga foofu Martinique instant bi ana xaritam ya ko bàyyi woon <laughs> ana doom ya mhm. mais xoolal tey teraanga ji ko borom bi defal lan moo ko may mooy dafa bàyyiwul mhm. maanaam boo jugee daanu jugaatal mhm. lu mu metti metti bul bàyyi bàyyi mukk parce que doomu aadama mu mën aduna inna ma'al usri yusra yalla li tax muy ñu fi moy ñu fekk fi ay jafé jafé fexé ba trouver solution jafé jafé yoy mo tax heure bo songé ben jafé jafé ba daan ko songal ba ca dess mhm. doomu aadama moo mën adduna kon nit ki ak lu mën xew mhm. sa aduna bul décourager lepp loo dund ba japp ni lu metti la ñak mhm. bak bi nga ñak bak ni ba japp lu metti la amna ku dund lu ko gëna metti fouf ta tay ji boo ko gisee ñee ko te bu la waxé fu mu jaar rek ñu yërm ko parce que ñi fi réussir ñëpp bo la waxé seen parcours fi ñu jaar abou Rahal Lincoln ci laay ñëw nii. <laughs> ci laay ñëw nii. ma ñëw ci. waaw léegi euh, vieux. Mhm. vieux sama xarit nee na macha allah monsieur maire. Mhm. parce que il fa que ma ubbee lii borom ñi nga xam ni dañoo def bac échoué. Mhm. vieux xam naa yaa ngi may déglu. soxna jaara yow mi nga xam ni yaa ngi may déglu. Euh, yéen ñi toog nii te di ma déglu tey bàyyi xel. déglu leen histoire bii ma leen di nettali. ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax a baax. wallaay ndeysaan Cheikh Tidiane dara mi ngi ñuy bàyyi xel moom moo bind. Mhm. livre am boobu tuddee ko l'alchimiste des cœurs. Aidara waaw maa ngi koy bëggee. waaw sama sëriñ ma lay jaar. <laughs> livre boobu laa liir. Mhm. ba mu jeex. 4 mhm. heures du matin may jooy. ndeysaan livre boobu dafay soppi dund doomu Adama. l'alchimiste des cœurs Cheikh Ahmed Tidiane Aidara moo ko bind. te ki ko bind ndaw la. damay digal nag ñëpp nañ dem Cheikh Tidiane dara na ñëpp dem wuti livre boobu c'est un livre qui est extraordinaire nga def ko sa livre de chevet képp ku yor livre bi di ko liir te di ci bàyyi xel wallahi alazim amul dara loo xam ne doot na nekkati obstacle ci yow parce que dafay defar sa dund boo ko liiree ba jël dund xale ba ndeysaan xale bi nekkoon ci lu ko neex toppoon bakkanam am 35 ans ndeysaan ak góor gi nga xam ne moo changé dund mais c'est extraordinaire ci lay netalé dundu maçon ba ndeysaan mhm. bu extraordinaire mhm. soxna jaara maçon bi mhm. dafa liggéey ba am 65 ans exemple la len di jox rek pour ngeen comprendre parce que fi comme 65 ans nga dem retraite eh, mu ki ki koy liggéeyal niko dama damaa jël sama retraite damaa bëggoon dem ci wetu soxna si noppalu mi ci livre bi may wax nii c'est extraordinaire waa koy liggéeyal niko ah té nga tok rek baña bayyi ndax retraite amul retraite amul nit ki tank ya ngi dund waru retraite ki nga xamni mo jité les États-Unis d'Amérique 78 ans la am. Mhm. demal ci grand place yi ñi am 60 ñi fa tok ñu bari amuñu 78 ans pourtant def nañ seen bop mag bu yàgg abandonné nañ pa foofu noonu foofu noonu ci bo demee ci village yi. waaw léegi xam day am 70 ans. waaw xol day ne ci tool yi di yëngu day dem ba 1 heure. ndaysan gonta 3 heures dem. am nga nonu te dañuy dañuy âgé. day âgé Cheikh Cheikh Tidiane Aidara neen am na livre bu ma jox de l' obstacle et le chemin. l' obstacle nee na dina ma jox livre bii ma lire ko incha allah su ma ko liree dinaa ñëw fii. Mhm. wax ko ñëpp Cheikh Cheikh Cheikh Tidiane Aidara. jërëjëf comprendre nga. Mhm. nee na. Mhm. mu ni mu ni mu ni ki ko ki koy liggéeyal ni ko damay retraité waa ji ne ko waaw kon léegi comme da ngay retraité. da ngaa bëgg a dem noppalu léegi tabaxal ma kër bi mujj ci kër yi rek bi mujj. bi muy mujjee tabaxal. <laughs> maçon bi ni ko d' accord. mais comme maçon bi mas bëgg na bàyyi mhm. léegi nag mu ni kër gii sax mu yoo xam tabaxal ko ko su ma ko tabaxalee mu jaar yoon sax mhm. day tax moom mu gën maa téye léegi nag kër gi may tabaxloo tabaxloo mhm. naa ko tabaxee noo xam ni bu ko gisee dina xam ni kii affaire yi wax dëgg fa yàlla bëggatul yaa ngi dégg maçon bi dem lam daan jënd yu bees ci kër yi mu daan tabax maas mu dem jënd ay matériels yu màgget jënd deuxième main waaw lam ci daan def ci doole pour affaire yi baax mu wàññi ko bu mmh. dee trois bëri nga fer mu jënd deux mu jënd deux <laughs> maam lépp lu mu doon def rek pour kër gi baax mmh. daf ko wàññi waaw parce que nee na bu bu ko defee bu ko patron bi gisee mmh. dina ni comme kii bëggatul naa ko libéré rek garawul mu dem def loolu tabax kër gi ba pare patron bi ñëw visiter kër gi ndeysaan maas daa di yëkkati caabi kër gi ni ko am maçon bi tiit ni ko déet lu xew mu ne ko ah li yaa ko moom mu ne ko man sama fukki xel xalaatul nga liggéeyal ma ba fi nga toll nii ma kontaan ci yow mhm. ngay dem retraite te du ma la may kër waaw ni ko bi ngay tabax kër gi dama mhm. dama la ko bëggoon defal surprise rek pour ma jox la ko sa cadeau mhm. mais Mass yow mi may déglu soxna jaara imaginel maçon bi lan la war a yëg foofu mu toog <laughs> dina ni ay su ma yëgoon ni kër gii may tabax man ma koy dëkkee kon ma gën cee góor wallaay ndeysaan ah moo tax àdduna noonu la mel léegi nag Mass Nous ñëw ci dund koo xam ni échoué jël ko référence pour nga xam ni nit ki amul amatul lay pour wax ni damay abandonné mas mm-hmm. Kokki 1809 le judd may 1809 le judd en 1816 mm-hmm. Mas, mm-hmm. yaayam bi ko jur génn Mhm. kon sept ans la am. sept ans waaw bi yaayam di génn àdduna juróom-ñaari at. Mhm. teel na de. mas mhm. waa ji toog ñaari at. non waaw kay 1809 la judd. ngeen baal ma 1809 la judd. 1816. bi muy am juróom-ñaari at. waaw dañ leen a génne seen kër. waaw. déglu leen bu baax. 1809 la judd. 1816. mu am juróom-ñaari at ñu génn leen seen kër mhm. problème problème problème yaa ngay tàmbali de juróom-ñaari at la commencé problème yi commencé tàmbali ci moom mhm. mu toog ñaari at après deux ans plus tard mhm. soxna jaara en 1818 yaayam gaañu yaayam bi ko jur ndeysaan mans 10 ans plus tard 10 ans plus tard en 1828 sëram bi mu dese woon gaañu mi ngi bëgg bëri de 1831 mu amoon ben entreprise boo xam ne moom la tegoon entreprise boobu rek la dese woon. Mhm. entreprise ba daanu def fayit mhm. ba léegi waa ji mars 1832. Mhm. waa ji présenté wu ci législative mu perte. bàyyiwul bàyyiwul. 1833. mu àbb copainam xaalis. pour def benn financement. avant année bi di jeex. financement ba tombé à projet ba tombé à l'eau. bàyyiwul déedéet de mu a 17 ans. Mhm. fukki ñaar mhm. pour faire bor mhm. mars 1835. même si ji. ben jigen, mu fiancé wu ak quelque temps plus tard. femme bi de. 1836 mars. même nit une dépression. Tout dof de hôpital ben la Bayoule, de. Mhm. Mass mu ñëw 1840. Mhm. mu présenté wu pour nek électeur. Mhm. mu Bayoule, bàyyiwul Hmm. 1842. mu am soxna. mu am ak soxna ci ñent doom Mass. laaj mo lu xew. ñetti doom ya dee. ñetti doom ya dé. Bayoule ba légui. 1843. mu présenté wu waat pour congrès. mu perte masse. Mhm. bàyyiwul déedéet. Mhm. cinq mhm. ñaari at deux ans plus tard. mu présenté waat ci congrès bi. mu pertaat. ba tey bàyyiwul. ba tey bàyyiwul masse. mu defarwaat mu defarwaat. 1850. xam nga amoon na ñeenti doom ak soxna sa ñetti ñi gaañu. waaw cinquante kenn ka mu desee woon gaañu. doom bi bi xam moo la dese woon. moo la dese woon gaañu. muy las kiri. waaw gaañu borom bi jël ko. ba léegi bàyyiwul bàyyiwul de 1854. Mhm. mu présenté wu au Sénat. Mhm. Mass. Mhm. mu perte. ba léegi bàyyiwul. ba léegi bàyyiwul. mu ngi damay defarwaat. day defarwaat. yokk cere. dolli ñeex. acca 1856 Mass. il se présente pour être vice-président. il perd et n'obtient même pas 100 voix ci élection bi ci vote bi. mu pertaat même amul 100 voix. waaw amul sax 100 voix. muy damay defarwaat. mu perte mun de defarwaat. est-ce que mars 1858. même wadjo mars présenté pour être vice président. mu pertat encore waaw pertat mais hmm. bayoul de waaye nak mars. Hmm. en 1860. Hmm. Abraham Lincoln. devient le 16e président des États-Unis d'Amérique. et fut deux mandats extraordinaires. <laughs> ok ki Lincoln non wallaay ndeysaan Abraham Lincoln. est-ce que. Uh-huh. imagineel bu arrêté won hmm. ci perte yu njëkk ya hmm. ndakate li muy perte yëpp borom ben ko dencal ni ko li ngay wut nii. dafa hmm. tuuti li ma lay jox moo dàkk fouf mooy bis a ngi ñëw yaay jiite les États-Unis d'Amérique. wallaay ndeysaan. xoola échec yi mu tegle maas. wallaay ndeysaan. waaye musul bàyyee. Pape musul bàyyi. Pape foofu. waaw euh, da nga naan waaj sax est-ce que ayul gaaf. <laughs> waaw bu la ñuy wax fii danaa dafa ay gaaf mbokk yee ko ko bàyyil lii jigu la bàyyil la bàyyil loolu wallaahi mais mu jàpp mu jàpp mu jàpp ndeysaan li olof naan boo yàggee booy jug ci bac bu yàggee fu bac fekk la ci wallaahi loolu moo fa nekk kon nit ki yow nga xam yaa def bac <laughs> waaw bul ni man benn laa def ñu aw wallaahi ndeysaan lay amul nga abandonné non hmm? non loolu loolu dañ cee war a nekk lay amul nekkaat parce que comme lu wax rek parce que borom bi mooy bëgg ngay góorgóorlu mhm. ndax euh, wallazina jaahadu fiinaa lanahdiyannahum subulanaa borom bi ni boo góorgóorlu nekk ci rek amaana sax nga def année bi amoo sax nga nekkaat ci rek borom bi nee naa wutal solution li ma indi moom mooy daax wallaay day subul lu am solo la waaw gis nga nit na nga def rek li des nga bàyyi ko loxo bi nga bàyyi ko si borom bi subhaanahu wa taala kon ñi nga xam ne ñoo fi nekk mhm. ki nga xam ne muy Abraham Lincoln mhm. ak Michael Gouassy mhm. fi ñu jaar seeni parcours fi ñu jaar mu nekk loo xam ne lu métti métti la waaye tey seen dara mënul fay seen ba gén mën sax mën nañu génn àdduna sax mais pap ba àdduna tukki seen histoire du fay kon yow mi xam yaay diw yaay def bac loolu lañ koy war a jël de ko exemple hmm. parce que pap li muy expliqué nii euh, yaa ngi fàttali ko bi ñu woon commune de Koul sama village kër ma sama Fatim xale bi nga xam ne moo daan na bàyyi jàng ni pap ni saan mu ngoy ci bubu yaay ji ni ko man yaay dama naan na bàyyi jàng sax mais mais bàyyi mu jàng wallaay mu nekk waa ji daal ni ma Pape damaa découragé woon naroon naa bàyyi jàng ndeysaan mhm. waaye yaa tax may continuer Pape ci loolu découragé nit warul euh, mooy ko kuul la dëkk Baye Moulay Fall euh, mu nekkoon koo xam ne nii jàmbaaru lislaam la woon moo nekkoon sëriñ foofu noonu ca kuul mhm. donc moom dafa dafa dafa génn àdduna démb euh, di ko ñaan rek borom bi yeesal yërmandeem ci kawam taaf ñu ci barkeem waaye ci noonu tamit xalifa bi nga xam ne moom mooy xalifa Daara Diop sëñ Ablaye Kane moom tamit jóob moom tamit dafa wàññeeku démb moom tamit euh, nga xam ni démb suñu commune boobu daal suñu commune de Koul xawoon na euh, doy waar daal mais loolu lépp borom bi rek xañ ne loolu moo ma neex yàlla rek donc suñu xalifa yooyu nga xam ne ñoo génn àdduna donc di ñaan rek borom bi taaf ñu seen barke vraiment ndax pap xalifa bi ma lay wax nii euh, sëriñ Ablaye Kane Diop mi lay wax nii mi ngi dëkk Daara Diop. ndeysaan te commune de la nekk. léegi maas koo xam ni jaan mos na laa mat rek. mooy lool moom moo lay lugg. léegi nag maas Pape waaw. Euh, spécial sëñ Saliou Touré bi day commencé léegi. Mhm. Euh, wuyul wuyul xaar mi ngi lay woo fee mhm. léegi daal euh, de toute façon. Mhm, Pape. Ibou Yade ndeysaan Ibou Yade moo jàngal suma suma xarit. waaw. moo jàngal suma suma suma rakk Baye Mar ñaw ku baax la ndeysaan maa ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu tànd ak bu baax bëgg Serigne Touba Ibou Yade kontaan nañu trop ndeysaan mi ngi may wax léegi di ma bind ndeysaan bu ko defee maas ñu ñëw nag ci jëmm ju tedd ji nga xam ne moom la ñu waxtaanee. émission bi xale yee ko moom rek ngeen comprendre ko noonu moo tax suba bi ñëwee mënuñ ci yàkk bañ a wax. waaye nag ñu ñëw ci ki nga xam ni moo waral jotaay bi Serigne Saliou Touré. ginnaaw ba may wax xamal ñëpp ni leen. Ahmed Saloum Dieng keroog bi may def fi waxtaan ci Serigne Saliou Touré. dafa yëkkati six mètres mètres euh, masin russe jox ma ko. jël naa ko de maa ko ciy sant bu baax mu def ko ngir àddee Serigne Saliou Touré Xaadim Soumaré tailleur ni ma pap dinaa la ko ñawal gratuitement def ko àddee Serigne Saliou Touré waaye maa ngi bëgg lool di kontaan loolu ngeen ma defal ngir jëmmi Serigne Saliou Touré waaye nag mas xam nga dama waxoon ni dama koy sol ci jur journée xasida yi nga xam ne Serigne Mountakha moom la woote. Mm-hmm. waaye démb dama tey suba damaa xëy di sangu ñëw ni ma pap ma ko mun ma sama ma ngi koy jël ñaw ko. Mm-hmm. <laughs> falaa ci toll nee na dem ma ne ko kon jëlal. n'est-ce pas mhm. bu ko defee euh, maa ngi maa ngi mhm. looloo tax nag Khadim Soumaré xam naa xaar na ma waaye loolu tax gisoo ma waaw mu maire daal moo ñëw nangu ko ci man mënu ma ci dara mhm. waaye moom laa bëggoon a sol nag ci journée xasida boobu Serigne Mountakha woote na ñëpp dem maas bu kenn toog Serigne Mountakha na ñëpp ñëw ci le 11 ñu màggal journée xasida yi nga xam Serigne Touba dafa wax ni kita kiraamati xattu yat yi Serigne Touba sama kiraama li wax ji bari bari yëpp mooy suma mbindum loxo bu ko defee nag maas ñu ngi woon ci Serigne Saliou Touré war koo continuer ñu ngi tolloon ci njàng meeg yu ni mel. Mhm. waaye nag ginnaaw bi sëriñ bi jàngee ba noppi moom sëriñ Saliou Touré ci la ko sëriñ Saliou nag Mbàkke ni ko. Mhm. dama bëgg boobu sëriñ Saliou. Mhm. daaraam yi amul woon ku daan jàngale ay matières yoo xam ni dafa am ku ci spécialisé wu. comme ay grammaire naxwu fiqh sarf. ak yu ni mel. sëriñ Saliou Touré nag ñëw ci daara ja ku jàng alxuraan ba pare mu formé la ci xam-xam yooyu ma la wax mas kokki benn sëriñ Saliou Touré. bu mën a jàngale la amoon waaye Serigne Saliou Touré formel na Serigne Saliou Mbacke ñoo xam ne matière yooyu yëpp ñoom mujj nañ sax ba di ko jàngale ñoom mujj na Moustapha mujj na Maskoki ba dund daara ja yi Serigne Saliou Mbacke Serigne Saliou ture ni sëriñ Saliou Mbacke ni ko léegi bàyyil ma yor dund daara ji ma wuutu la ci wallaay ndeysaan joma ngoog Serigne Saliou Touré Moustapha euh, euh, Massock yi Moustapha ndeysaan sama xel dafa ne ci moom ndeysaan Moustapha <laughs> bëggee waaw <laughs> uh-huh. wax na ni moom ak Serigne Saliou Mbacké mm-hmm. bokk nañu benn lal ngir fonk gi mu ko fonkoon ndeysaan mm-hmm. daan ko xamal léppam mm-hmm. ba ci mbiru yàllaam mbiru jaamu yàllaam mujj tamit ci daara ji képp ku ñëw bëgg laaj dara ci xam-xam boo ñëwee Serigne Saliou Mbacké da lay yebal ci Serigne Saliou ture ni la demal ci moom ndeysaan lépp lu nit bëgg lu mu bëgg a laaj Serigne Saliou Mbacké ci wàllu xam-xam bu ñëwee Serigne Saliou Mbacké da yabal ko ci Serigne Saliou Touré loolu yitte ju kawe la de. Mhm. kon ndaw ñi nañu ko roy ci xam-xam. Mhm. xam-xam ay fekk ku kenn tegul fenn mu ko tegu ba ci kaw. réer yi fekk ku ñëpp tegoon ci kaw màcc mu wàcc ba ci suuf Moustapha euh, Mas Kokki mhm. gis nga dikkam Cees nag dikkam Cees. loo séen rek soxna jaara am na mbiru zahir. am na mbiru baatin. Serigne Touba. mu ngi mel ni Serigne Touba rek bi nga xamee ni. mi ngi dem ci géej gi mhm. maanaam mbiru baatin bi mooy dafa dugg xalwatu mhm. ngir bëgg bokk ci bi yu mhm. ñu ni ko loolu weesu na ndax tuur deret moo koy maye te loolu weesu na mënoo ah bokk ci waa ahlu badr te loolu Sëriñ Tuubaa nag def ci taxawaay ba gis nga nim ko réussir waaye nag mbiru zahir bi mooy lan mooy faw tubaab bi ñëw tuumaal Sëriñ Tuubaa Ibu Yàdd loolu mooy mbiru zahir bi sëriñ bii tamit nag di sëriñ Saliou Touré ñëwum noonu la dem noonu la demee ndax moom wax na lu ëpp fanweeri at sëriñ Touba feeñu na ma wax ma ni dinaa ko liggéeyal Thiès te boobu ëpp na 30 ans Maskoki moom Serigne Saliou Touré ndax nee na am na benn julli ginnaaw tàkkusaan nee na toog naa nii yonent bi ak sëriñ Touba ñëw toog ci sama kanam ah toog ak moom kon kooku ku daan gis sëriñ Touba mm-hmm. ah kon kooku ku daan gis Serigne la waaye bi nga xamee ni nag dem na ba toll benn jamono comme noonu rek mu daan taxawu Serigne Saliou am na boo xam ne Serigne Saliou ndeysaan Serigne Saliou Mbacké daa dem Côte d'Ivoire Serigne Saliou Touré defaraat kër gi ndeysaan ba Serigne Saliou geroog ba mu ñëwee xàmmewul sax kër gi ndeysaan beneen bi ndeysaan dafa wax ni daa gis kër gi gis ni kër gi sàkket la ak zeng su tawee dafay yàq ko Serigne Saliou Touré defaraat ko tabax ko miire ko loolu tamit am na ku ñuy wax sax bàyyi Moodu Samb mm-hmm. hmm? ci la xamee Serigne Saliou Touré mii mm-hmm. kooku danaan jaay ciment mm-hmm. Serigne Saliou Touré dem ci moom yenn saa yi du am mu koy leb mu mu koy defal bon moom it tamit kooku ma lay wax ni moom it des fois mu joxe addiya ci liggéey bi participation participation hmm? sëriñ bi di dem ci nit ñi di dajale tabaxal ko kër gi kon téyel na ko daara ji waaw jàngaleel na ko mm-hmm. yoral na ko dund gi mm-hmm. ak yeneen yu ñu mënta wax mm-hmm. Mass Kokki bi loolu amee ci la ñu dem nag ba mu yàgg sëriñ Saliou Mbacke dem ci sëriñ Abdou Lahad Mbacke ni ko Saliou mii day dama koo gërëm ba tax na dama koo bëgg a wutal daara tabaxal ko ko may ko ay ndongo waaw mu nekk fa di jàngale keroog Cheikh Abdou Lahad Mbacke dani ko ah Saliou day moom daara de ndaw na ci moom koo xam ne dundam yëpp ci daara la ko def mhm. nga di ko yutaat daara da koy sonal rek mhm. ni ko dinaa ko jox dinañu ko jox lu gën daara mhm. dinañu ko yóbbu ci ab dëkk mu nekkal fa Serigne Touba ndax moom ëpp na daara monsieur Saliou Touré waaw waaye gis nga mu euh, mas mbiru Serigne Touba ni mu yéemee ni mu yéemee rek dafa barkeel waaw ni mu yéemee ndax bi Serigne Saliou neseree loolu dajeeg waa Thiès murid yi nga xam ne ñoo daan dem kër Serigne Fallou gii dafa nekk ñoom it ñu dem sax ba jëm jamono ak ya ca xew ñoom it ñu dem ci Cheikh Abdou Lahad Mbacké ni ko dañoo bëggoon a wut kër sëriñ Touba fii ci Thiès bi ñëwee wax ko Cheikh Abdou Lahad Mbacké ni ko dañoo bëggoon am kër Serigne Touba ci Thiès Cheikh Abdou dañ leen ñu toog xaar déglu ko ci la Cheikh Abdou Lahad Mbacké ndeysaan woowee Serigne Saliou Mbacké ni ko dama bëgg yóbbu Thiès Serigne Saliou Touré Serigne Saliou Mbacké ni man day mhm. am naa fa pàkk maanaam am naa fa terrain mhm. comme da nga comme comme da nga koo bëgg a wutal dara da da nga ko ma ko mën a tuddee sax da nga ko bëggoon a wutal daara. Mhm. léegi nag mu ni ko mën naa koo jox pàkk boobu ci la Serigne wu nag jël pàkk bii. Mhm. moo ko moomoon Ousmane Ngom maire moo ko moo ko dagaloon. Mhm. Hmm? Serigne Saliou Mbacke nag ni kon nañ leen ko jox ñu def fa kër Serigne tubaab googu ak jàkk yooyu ñu bëgg a def ñoom. macha allah bu ñu ko defaree ba noppi nag ci la ñuy ci la fi indi Serigne bi ndeysaan. Euh, Mass. Serigne Saliou ture mu doonoon nag lu metti ci moom ndeysaan mhm. Mhm. diir bu yàgg sax mu lànk ndeysaan lànk gu metti mel ni ku tàggoog sagoom kenn mënta wax ak moom booy wax ak moom sax ba tudd tudd Cees du la déglu dinaa ñëw ci li ko waral ndeysaan mhm. ba nga sax Serigne Saliou Mbacké dafa mujj dem ku mu xam rek moo wala ni la demal nga waxtaan ak moom ngir mu nangu diirub liggéeyub Euh, jàkka ji waxuñu ko ni yaa fiy nekk dan na fi ñëw nag même bi ñuy teg première pierre ñëwoon na ah bi ñu ko teg ñëwoon na tamit daan na def saa bu ñëwee Thiès dina ñëw foofu ndax boobu murit yëpp seen projet moo nekkoon jàkk yi murit maa Serigne Saliou Mbacke nag dafa am sax ku mu waxal yónni ko ni ko waxal Saliou mu wuyu ji Cheikh Abdou ndeysaan keroog mu ñëw Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax ko ko mu ni ko Mbacké man day gantal naa diglul lu waral loolu su ma sañoon ngeen bàyyi ma fi rek ma liggéeyal Serigne Saliou Mbacké ndeysaan dafa bëggoon Serigne Saliou Mbacké ba nangu la taaxale ko ak wallaay ndeysaan macha allah ki nga bëgg rek amoo ku dul moom jege ko ngeen war a tàqali ko dafa metti ndeysaan si jubaa waxoon na xusuur yi xallat wal ahlu an ni tafarraqat li madxi allazi anhu lmadi xasiru ndeysaan dafa bëggoon Serigne Saliou ndeysaan dafa bëggoon Serigne Saliou nag dafa waxoon sax dama bëgg liggéeyal Serigne Saliou ba faatu bëggul tàkkalikoo ak moom takkalikoo gi mu nar a tàkkalikoo sëriñ Serigne la bëggul woon ndeysaan ndax xamul ku dul Serigne Saliou lépp lu mu doon daj ngir sëriñ Saliou la woon danaan fekk sax ndongo yi naan leen ñaanal leen ma ñaanal leen ma ma am xaalis ba tabaxal Serigne Saliou daaram ji da koo bëggoon ndeysaan léegi nag bi nga xamee ni gàntal na Cheikh Abdoul Ahad Sëriñ Saaliw laaj ko lu tax mu ni ko dama laa bëgg a liggéeyal mm-hmm. dama laa bëgg a liggéeyal ndeysaan Sëriñ Saaliw ni ko sàllaaw de yi loolu la Cheikh Abdoul sant de yi su ma ko santoon man mii di sa sëriñ ma def ko mu ni ko nag mënumaa liggéeyal te demoo Cees léegi nag Mas mm-hmm. ci la sëriñ bi nag nangoo tabaski 1979 moom Serigne Saliou Touré sax. Hmm. moo jiite julli gi fii ci Thiès. macha allah def xutba bu rëy. waaw waaw macha allah. ca at ma ca topp nag 1980. Hmm. maas ci la Serigne Abdou Lahad Mbacké dajale benn délégation jiital sa ku ñu daan wax Modou Mamoun Niang. Hmm. jox ko kàddoom ñu ko nag soo demee. mu daal di Serigne Saliou Touré Amna délégation ba ñu ma àndaloon. am na ku ñu Cheikh Dia. Sidi Faye ak ñeneen ñu ko Mourou Mamoul xamal leen ni Cheikh Lahad moo fi indi moom Serigne Saliou Touré mooy nekk imam bi moom Serigne bi itam moom Serigne Saliou Touré mu wër nag dëkk bi dem Medina Fall kaw Sara Fall dem nuyoo fu ab kër murit nekk rek dem na fa nuyu la xamal leen ni dañ ko dañ ko fi indi ci dëkk bi tàllal ñëpp loxo nag ba liggéey tey lu rëy lii nga xam ne liggéey Mas Kokki moom Serigne Saliou Touré Mas mas sëriñ bi nag amoon na ay jafe-jafe fii ci Thiès du ci lépp la ñuy dikk waaye ak jàmbar sëñ Saliou Touré wallaahi kenn du moom amul werante de euh, ay mag ñoo fi nekkoon mas ay mag taxawul liggéeyu jàkka ji jàpp ni bu mbir mi noppee ñoom ñooy jiite xam nga sax daawuñ sax jaar ci turam de waaw gone gi rek lañ ko daan woowee. Mhm. ndax ku juddu 34. ba 80 mhm. 46 ans nga am. Mhm. ndeysaan Mass 85 si Abdou Xaadir di commencé di ko may ay ngan mbaakol Thiès commencé nag di def ay ziar. ay benn benn. mbiram moom Serigne Saliou Touré dafa méngoog mbiru yonent bi. comme ni yonent bi defoon nag ndax yonent bi bi muy ñëw mag ñëpp a ko daw xale yi ñëw wut si ko jàppale ko nekk ci wetam. moo nga gis ni mu meloon ci ndaw ñi. moom Serigne Saliou Touré bi mu ñëwee. nga gis xale yi ñëw jege ko nekk ci wetam. Mhm. bàyyi Saliou Gadiaga. Mhm. ndeysaan sama góor gi maa ngi koy ziar di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér. Mhm. mbay. Moustapha Dieye ak ñu nekk ak moom ñu bari nag tàmbalee di ñëw nag di ko jox seen bopp. Cheikh Lahad ci boppam. ñëwul boppam ci gouverneur Tidiane li wax ak moom woo président Abdou Diouf wax ak moom wax leen ni dafa am ku ma indi fii di cees leeral leen nag taxawaayu Serigne Saliou Touré. mus euh, mas mhm. sëriñ Saliou Touré danaan wax naan fukki at ak juróom-ñaar maa ngi naan kan maa ngi naan kuy seriñ Touba daan na wax loolu ni fukki at ak juróom-ñaar maa ngi naan kuy seriñ Touba <laughs> léegi nag nit ñuy jariñoo Serigne Touba laa leen di wax looloy pédagogie mhm. ndeysaan waaye nag ku yéeme la moom Serigne Saliou Touré mhm. euh, gis nga buñ doon ñëw ci kéemtaanam moom Serigne Saliou maas maas xanaa gis yonent bi moom kéemtaan kam gënu koo rëy maas hmm? hmm? xanaa gis Serigne Touba kéemtaan gënu koo rëy hmm. nee na Serigne Touba feeñu na ko ñu mm-hmm. ko sama gopp bii fa ma ko sampoon kenn simpuyu ko liggéeyal ma ci yow laa bëgg nga liggéeyal ma ci damay confiance waaw mm-hmm. boobu bi mu xëyee mu wax ko Serigne Saliou Mbacké mu ne ko ah kon day Serigne bi nee na daa bëgg soppi doxin Mass bokk na ci ay kéemtaanu Serigne Saliou Touré li nga dégg rek Mass Serigne Moustapha Serigne Mountakha mhm. alxalifa wax ko mhm. ndax bu tooguloon ci publiquement wax ko man duma ko wax mhm. waaye ñëpp yor nañu vidéo bi alxalifa Serigne Mountakha mu yéeme mi moo wax ñépp di dégg hmm? mu ni toog gi mu toog xalifa nee na bi muy nekk xale bi ñuy nekk xaleel mhm. ci zahir ci la ko Serigne Saliou ture waxoon ci la ko xameloon moom Serigne Mountakha mhm. <laughs> ah ñoo daan bokk benn lal bu ñuy tëdd maas ba ba ba ñu tëdd ba ci yàgg guddi jot Serigne Mountakha nee na mu yeewu tourné gis Serigne Saliou ture tëdd ci suuf mhm. ay ndaw lañ de nee na mu laaj ko ko mu ni lu tax nga wàcc ci suuf Mm-hmm. sëriñ Saliou Touré ni ko. Mm-hmm. dañ maa xamal ni bis dina ñëw di nga mës a doon sëriñ Touba. moo tax ma tëdd ci suuf te boobu tout tànk la de. jamono jooju. Mm-hmm. ki xam loolu mas mooy kan. ah <laughs> <laughs> maanaam jamono jooju ki xam loolu. mooy kan. ah ah déet maanaam ñun ki nu yor ñun. malheureusement li may faral di wax rek. on a des savants de toutes sortes. on a des techniciens, ah oui. on a des polytechniciens, mm -hmm. on a de la matière grise. On a tout ce qu'il fait pour, pour, aller de l'avant. Et on restera les éternels battus de la mondialisation. Mm -hmm. Parce que tout simplement, on n'a pas de leader. Mm -hmm. ba pare li sëñ Tuubaa waxoon xadd fakka kabla xadd ba sa fadd la fadduru wala wala fu jaay ku xeeb sa bop mhm. ku wacc sa and and bo dem fek fa borom mu tok mu yi jëm kanam yëpp dañu jël sen mag ñi jàngale ko ci école ñun ba léegi ñu jàngale Victor Hugo jàngale Jean Paul Sartre wallahi ndeysaan waye ki xamaloon Serigne Mountakha mi ni ko dañu maa xamal ne ma bis dina ñëw nga doon Serigne Touba ci tur tànkam. Mhm. kii mooy kan moom Serigne Saliou Touré. Mhm. kenn xamu ko. waaw xam nga foofu gis nga suñu suñu suñu suñu mag ñi man dama jàpp ni ñun ndaw ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñun war na amaat beneen yoon amaat beneen doxalin fexe bay fësal suñu parcours yi nga xam ne suñu mag ñi jaar nañ mhm. ak diggante bi nga xam def nañ ko. ndax boo xoolee ki nga xam ne moom mooy diggante Serigne Saliou Touré ak ki nga xam ne moom mooy Serigne Saliou Mbacké. nga bi ñu ko jox dara ji pap Euh, dafa am confiance ci moom. Mhm. Pape jamono ji bari na koy am ci confiance nga dégg ko mbir mu réeral ko. Mhm. loolu lay am. Mhm. waaye boo xoolee ci Sary Mbacké Sëriñ Saliou Touré bi nga xam ne nii jox nañ ko ko responsable leen ko ni ko yow yaa yor lii. yi nga itte jëm ca def. ba xalaat ni man su ma amoon ay millions wala amoon ay milliards naa fexe ba daara ji mu jëmmal ko mu gën a ñoŋ ba gën a koo gis mu gën a taaru mu gën a rafet Pape koo xam ne nii mooy dem di di wax loolu. am engagement boo xam ne nii loolu xelam mi ngi ci hmm. Pape dama jàpp ne ñooñu kenn mu leen a fay ñooñu jot na yoon ñu jël leen def leen ay li nga xam ne mooy ay référence ndax njëriñ kese la macha allah macha allah ci yoonu murid bi li nga xam ne def hmm. gis nga mas kon hmm. bi nga xamee ni Serigne Abdou Lahad Mbacké wàcc na liggéey ndax euh, maas Serigne Saliou Mbacké dafa bëri woon lu muy tawat ndeysaan Mbacké Balla bis sëriñ Saliou Touré ni ko. Mhm. dëggal engagement boobu. Mhm. li fekk yaa ngi gis doomi sëriñ Serigne faatoo faatoogoo. Mhm, te boobu mas. njabootu Serigne Touba gi ñu ngi fi de. sëriñ Fallou mi ngi fi Serigne Chouaib bi ñëpp a ngi fi. mu ne ko li fekk yaa ngi gis doomi Serigne Touba faatoogoo. xoolal engagement boobu am na wala amul. sëriñ na koy Serigne Saliou Touré. ndeysaan yàlla fi yàgg loolu te moo tax amin moo tax bi nga xamee ni. Serigne Abdou Serigne Abdoulaye wàcc na liggéey. moom Serigne Saliou Touré mu ànd ak Serigne Saliou Mbacké ñu dem ci sarax sa dañoo ñibbisi rek Serigne Saliou Touré wax Serigne Saliou Mbacké ñu mhm. ko waajal waajal hmm. waaw Serigne Saliou Mbacké ni ko looy wax ni mu ne ko waajal kii toogul day dem yàlla may na ko lool ñu ko Cheikh Abdou Khadir toogul day dem keroog Serigne Saliou Mbacké dafa jaaxle sax ba hmm. taf loxoom ci gémmiñ gi moom Touré Balla mi waaw waaw ba ñu demee hmm. ba at mi jege ci la ñëwaat ni ko mbàkke waajal mbir mi jege na de ni ko mbàkke waajal mbir mi jege na moo tax yooyu bokk na ci li ko Serigne Saliou Mbacke daan wóoloo ci wàllu kéemtaanam moom Serigne Saliou Touré. bokk na ci ay kéemaanam moom Serigne Saliou Touré. Serigne Saliou Mbacke yónni ki ñuy wax Matar Jaxate Matar Jaxate ñëw Thiès. Mhm. je pense que Thiès la dëkk sax su ma jugul sax mi ngi dund. xam nga kooku kon mënoo ko fenal. Mhm. sëriñ Saaliwu Mbàkke ni ko dama bëgg nga dem cees waxal ma Saaliwu boobu sëriñ Saaliwu Touré lay mhm. ni ko waxal ma ko ni ko ndox laa bëgg jamono nawet ni ko waxal ma ko ni ko ndox laa bëgg mhm. moo ko sëriñ Saaliwu Touré waaw macha allah waaw boobu parce que boobu dañoo wax ni nawet du am nawet bi dina am waaye du du baax météo def yooyu mi def rek ñu toog lu yàgg gisuñu ndox bi Matar Jaxate ñëwee wax ko Serigne Saliou Touré saan waaw ni ko demal ni ko Serigne Saliou Mbacké ni ko demal nga xam ne Saliou Saliou ni ko ndox laa bëgg Matar Jaxate ñëw wax ko sëriñ bi mu ne ko ah <laughs> Serigne ture Touré saan ni ko daal bu fekkee daa bëgg daal ay côtéem rek tooy maanaam xel ko mag yu ni mel ay côtéem rek tooy waaw waaw bu dee foofu rek la bëgg hmm. nam lam ma joxoon daal dama ko jox lam ma joxoon am na ko joxoon nag ñoom ñaar la waaw am na lu mu ko joxoon <laughs> waaw am na lu mu ko joxoon hmm. waaw lam ma joxoon rek waaw waaw baax na boobu Serigne Saliou daf koo daf koo fay de. Mm-hmm. <laughs> wallaay ndeysaan xam naa sax na mu tolloon waaye duñu ko wax. Mm-hmm. waaw mu ne ko nag waaye bu fekkee daa bëgg Sénégal gépp tooy. Mm-hmm. ne ko na dolli. <laughs> jëlal engagement boobu. makka ñu gën mag dem démb ñu leen gën magi tey loolu la Serigne wax de. wallaay ndeysaan waaw ah, ñu ko nee ko na mm. dell na dolli Matar Jaxate dem ci Serigne Saliou Mbacke wax ko ko. xam nga lu ko Serigne Saliou Mbacke wax Serigne Saliou Mbacke ni ko sàllaaw de yi ni mu ko waxee noonu la koy defee. sàllaaw yi ni mu ko waxee noonu la koy defee nee na nag mu teg ci lam ca teg ba lim bi mat Matar Jaxate bi mu indee xaalis bi jox ko Serigne Saliou Touré. nee na sëriñ bi ni ko soo demee nee ko. maa ngi ñaan ci barkeem Sénégal gépp tooy. est-ce que Serigne waaw. <laughs> Serigne Saliou Touré moo ni ko boo demee nee ko. Mhm. ma ngi ñaan ci barkeem moom Serigne salihou Mbacké bi wax ni dafa bëgg dafa bëgg taw té di ma ko dagaan mhm. boo demee ne ko ma ngi ñaan ci nena. Sénégal gépp toy mhm. lool la ko wax Matar Jaxate nee na mhm. su mi ngi dund néna ñaarém la tollu ñaarém lañu la sen auto bi mënatu la dem ndax taw bu bari Serigne salihou Touré musna ñu ci Serigne salihou Serigne salihou Mbacké ñëw rek fekk mu toog sëñ Saliou Mbacke ne ko ndox laa bëgg waaye ndox laa bëgg sëriñ bi keroog daa aalu moom sëriñ Saliou Touré daal dugg ci biir génn taw bi sotti mu ni sëriñ ne ko yow la yow la maanaam effacé boppam ni sëriñ Saliou Mbacke ne ko yow la yow la yow la. mos naa ñëw tamit fekk kuñ naan Cheikh Baba Cheikh Baba wàllu yàlla bu mag la ku baaxoon la. sëriñ Saliou nee na sax kooku bokk na ci juróomi wàll yu gën a rëy ci senegal mom Cheikh Baba moom mhm. kon ma xamam fan la tol kon ko de mhm. Serigne salou Touré néna mom ci Tu nak mo dem séti Serigne salou Mbacké Touba mhm. hmm? Cheikh Baba waaw Serigne salou Touré mo dem séti Serigne Touba comprendre nga bi ko laaj ko Cheikh Baba Cheikh Baba day sax mi ngi fi ah, sëñ Saliou Touré ni ko kañ la fi ñëw sëñ Saliou Mbacké ne ko ah man de maa ko wol woon sax ngir mu duggal ma xëlwatu am lu ma laajal Serigne Touba. Hmm. keroog Serigne Serigne Saliou Touré sax xaw naa aalu. Hmm. waaw mel ni ku tàng. ci kaw hmm. Serigne Saliou Mbacké. ko nan ngay amee ku mel ni man. ngay amee ku mel ni man. di woo keneen mu lay jël sëriñ Touba. loolu la ko wax nan ngay amee ku mel ni man. di woo keneen mu lay duggal xëlwatu. Hmm? waaye nag boobu sëriñ Saliou Touré miin na kër gi mu daal di nag dugg ci benn nekk moom sëriñ Saliou ture matul sax ay simili mu génnaat dan ni sëriñ Saliou Mbacke Serigne Touba nee na nangam ak nangam ak nangam keroog maas Serigne Saliou Mbacke tontuwu ko nag dana cell rek ñu toog tuuti rek Cheikh ba génn. <laughs> jaajëf waay. Cheikh Baba génn daan ni Serigne Saliou Mbacké mhm. ni ko gis na Serigne Touba mhm. waaye nee na li nga ma don laaj wax na ko Saliou Touré allahu akbar mhm. ah ni ko gis na Serigne Touba waaye nee la nga ma don laaj wax na ko Saliou Touré <laughs> say ñun ñun ties ño xam lu ñu am rek pap bu nga lam hmm? ko waxoon waaw bu ko serigne touba baa feeñoo ni ko bi ma sante kenn simpeeku te yow laa bëgg ligël mi loolu mmh. moo ñëw tey. Mmh. loolu laa ko ah, mu ngi noonu mu ni ko nee na li nga ma doon laaj. waaw wax na ko Saliou Touré. Mmh. moo tax euh, président Zik social Sidaat. waaw daara ja nag na ca gaa yëpp jàpp de. daara ji ñuy tabax. suba la waaw na ci ñëpp jàpp na ci ñëpp jàpp. waaw na ci ñëpp jàpp daara ji suba lañ koy tabax. daaru salaam ah. waaw na ci ñëpp jàpp bu kenn xeeb nag bu kenn yor téeméer ba ni da koo xeeb. Mhm. bu kenn yor 10000 ba mu ba mu yéem la mhm. wa na ci gayep japp wa waaw tamsir gem sa bop wa ma nga noonu saaku <laughs> sima waaw kon gaa yi ñu ci waaw ñu jëni ci saaku ciment tey jii am na ko duggal 2 tonnes sima wa kon gaa yi ñi ñu ngi ñeen dégg noonu yéen nepp dañ ci japp ci ci barki Serigne salou Touré mi ñuy waxtaanee mhm. euh, euh, maskoki Serigne salou Mbacké mës wax niko sëriñ Touba day bu del suwaatoon jamono balaa jox kenn loxo ci mbokk yi jox la jox la loxo yow loolu yu rey na de yitte la de bis tamit mës naa toog ak Serigne Saliou Mbacké mhm. Serigne Saliou Mbacké jëkk-jëkk rek di tuur ay xéewal ndeysaan ñu ko wax est que xam nga li may jooy sëriñ bi ne ko dimbali ci Mbacké mhm. mun ko dama laa yërëm mhm. dama xalaat rek su ma demee bëgg sa tuuma waaw soo demee bëgg sa tuuma ak ni nga ma bëggee ak fi ma toll ci yow loolu laa xalaat rek ma yërëm la jooy. ñoom ñaar kon beneen affaire seen diggante san hmm? mhm. Serigne Saliou Mbacke mës naa wax ni lu mu am moom Serigne Saliou Touré jës bu moo ko may ndax bëgg jës bu mhm. ndeysaan Serigne Lahane Mbacke mës naa dem ba toll ci benn jamono. Mhm. muy dugg xëlwatu keroog dafa def déclaration moom Cheikh Lahane Mbacke. daal di wax ni fan yëpp du ma mën a recevoir kenn ndax damaa soxla sama bopp. Mm-hmm. waa dafa wax ni léegi nag mu ni dafay def xalwatu. Mm-hmm. waaye nag xalwatu ga mi ngi ko doon defee dakaar boobu nag kenn xamul ni Dakar koy defee. Mm-hmm. parce que dafa waxoon dafa soxla boppam. kenn xamul ni mi ngi dakaar mu dem nag ca kër ku ñuy wax Abdou Karim Fall. foofu la doon defee xalwatu bi. waaye Serigne Saliou Touré moo dem ba foofu fekk ko fa. bi mu nee Serigne Saliou ture fekk fa Modou Mamoun Niang muy leen sëriñ bi laa soxla ñoom tamit ñu ni ko ah sëriñ bi day dégg li mu wax dégg nga li mu waxoon nee na nee na du recevoir kenn ndax dafa soxla boppam. Mhm. dafa dugg xëlwatu sëriñ Saliou Touré waaw dëgg la waaye moom laa soxla moom laa soxla. waaw ah waaw ñu ne ko ah mi ngi fële ñoon ko fu si am Cheikh Abdoulaye Mbacké nekk sëriñ Saliou Touré ñëw ba ci buntu néeg bi mu toog daa toog tuuti rek. Cheikh Abdou Lahad Mbacké ubbi buntu bi xamuñu sax nan la Serigne bi xamé ni Serigne Saliou Touré mi ngi fa tok gaay benen affaire lañu. beneen affaire lañ top xamuñu num ko yégué mi ngi fofu tok mu jaaxal len sax ñom Serigne Saliou Touré dugg xamal Cheikh Abdou Lahad Mbacké lam doon laaj Serigne Touba kérok Cheikh Abdou Lahad Mbacké dafa yuux ni ko Saliou Touré bo dé Serigne Touba wax mako Saliou Touré boo dee Serigne Touba wax ma ko Saliou ture boo dee Serigne Touba wax ma ko keroog Serigne bi sax dafa mujj a génn moom Serigne Saliou Touré di di waaxu Cheikh Abdoul Ahad simmi li mu sol di ko jox addiya kii mooy Serigne Saliou Touré waaw mhm. Mass mhm. na Cheikh Abdoul mës na ko wax ni ko Saliou Saliou mhm. ku dul day ci àdduna yaa ma ko gën a doy loolu de la ko doomi Serigne Touba yi seddal Mass waaye damay ñëw rek fa lay jeexale ci digganteem ak Cheikh abdullah Cheikh Serigne abdul Aziz dabbah hmm gis nga alaaji Abdou abdul Aziz dabbah borom darul habibi khulubuna tahwaha darul habibi khulubuna tahwaha ni mu meloon ci serigne bi sax dafa yeme won ni mu bëggee won serigne bi dafa kawe won mom Cheikh abdullah cheikh abdul Aziz dabbah ni mu fi mu tegoon Serigne Saliou Touré dafa kawe won gis nga demoon na ba ba ba dafa dem sax ba amatul sago ci moom sëriñ bi ak mu jëm mm-hmm. bu ñu ko yóbbulee xar tabaski bi mm-hmm. ni ko xar mii xari sëriñ Saliou Touré la moo la ko yónnee daf daan wax ni xar mi euh, danaan xar mi moom lay tabaskee xar bi ko sëriñ Saliou Touré jox moom Cheikh El Hadj Abdoul Aziz mm-hmm. fekk na boobu ñu dem nak ba jëm jamono yoo xam ni moom mënatul a génn ndax mage na mom góor gi Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh ndeysaan boobu nag bu ñu tabaski bu jotté buñu indé xar yi dañu ñëw rek wan ko liste bi ne ko diw ak diw ak diw indi nañ seen xar wan ko liste bi mu ni baxna kérok biñu ñëwé ni ko xaru Serigne salou Touré ñëw na ndaysan mu ni nañ mako indil ci salle bi cheet kérok dañu duggal xar bi ci salle bi góor gi Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh jël loxom yu tedd yee di ray xar bi ngir barkel lu ci macha allah. Hmm? est-ce que. saa yi lii kawe na de. Mhm. loolu kawe na de. nañ ma ko indil ci saal bi ñu dugal xar mi ci saal bi ndeysaan muy raayi xar mi di ko di ci barkeelu. Mhm. ngir li mu li mu bàyyeekoo ngir li xar mi bàyyeekoo ci Serigne Saliou Touré. Euh, Serigne Saliou Touré mës naa dem di seeti góor gi Cheikh Al Hadj Dabakh fekk mu tawat. ndeysaan bi mu ñëwee mi ngi fekk ñuy sexal góor gi di ko jox ñam bu mu lekk mhm. keroog bi mu ñëwee ki doon sexal góor gi Cheikh El Abdou Dabakh Cheikh El Abdou Dabakh dana ko joxal kudd gi Saaliwu Touré Serigne Saaliwu mu sexal ma saa loolu kawe na de wallahi trop hmm? El mhm. jabdu Abdou mhm. dañ ma xamal ni yow koo raay yow Saliou Touré mm-hmm. dañ maa xamal ni yow koo raay mm-hmm. yaramam du lakk borom 40 ans zéro faute moo ko wax Serigne Saliou Touré moo ni ko dañ xam nga pour ngeen xam dayoob dayoob ki wax lii. waaw bi mu amee ay semaine wala ay weer ci àdduna. Mm-hmm. baayam daf koo gàddu. leewu ko di di di doxta di Serigne Saliou Serigne Babacar Sy nee na damaa ñëw di di ndokkeel si Serigne. Serigne euh, Hadj Malick waaw Maodo. ci ganek àdduna góor gi di Cheikh Abdoul Aziz Dabakh nee na maa ngi fekk ko ci cour bi Maodo mi ngi ko uuf nii di doxantoog moom yaa xuddati fi shiddati in lam takun anta fa man yunqizunu min arrada ya al fi'l al waaw naan ko yow mi nga xam ni su ci jamonoy njàkkare yaa ma génne nga xam dama am espoir ci yow budul yow kan moo may génne ci ci ci njàkkare -hmm. ان لم تكن انت فمن man من الرضا يا صاحب الفعل الحسن كوكو بروم 40 ans zéro faute yooyu nga xamni 11 juin mo fi régler problème boo xam ne nekk ci biir bàmmeel régler problème bi Sénégal mo ni kérok bi ko Serigne sallou Touré seetee mu ko dañu maa xamal ni ma yow ko ray yaramam du lakk góor gi ni dama bëgg nga rayal ma sama yaram sa loxo ba mu daj <laughs> ndeysaan Serigne Saliou jël loxoom yu tedd yooyu dugal ko ci biir jàllabe bi ndeysaan defee ko ni ko góor gi waxee moo tax ba laaji Abdou wax ko sax ni ko mm-hmm. su ma wàccee liggéey na nga bokk ci ñi may dugal ci biir suuf keroog Serigne Saliou Touré nee na mm-hmm. bi ma déggee ñu ni alaaji Abdou wàcc na liggéey nee na li ma gën a jaaxal mooy lim ma sant ni ma nag ko defal ma bokk ci ñu koy dugal ci biir suuf te bi mu ma koy sant kat kenn fekkewu ko mu ni bi ma koy sant kenn fekkewu ko jaajëf bas maa ngi jaar cheikh bi naka la baleb tawfeex jaajëfati ñi ngi jaar yaa ngi dégg mu ni bi ma koy sant kenn fekkewu ko nee na nag maa ngi jaaxle nan laay def te mënumaa ñëw ñu koy defar ma ma ma wax loolu mu ma santoon parce que kenn fekkewu ko suñu Saliou Touré nee na keroog bi ma ñëwee maa ngi fekk foofu fees dell nee na daal ma jékki-jékki rek dégg benn kàddu ana Serigne Saliou Touré <laughs> na wuyu Serigne Mansour si borom daara ji ah, keroog nee na maa ngi ñëw ñu xëcc ma ba ma taxaw ci kàmm gi mas kii Serigne Saliou Touré mooy jëmm ji nga xam lu bari borom bi nous sommes roussé ñu am champion ci doxalinam ci dundam parce que mënuñu ko Nous mëno wax lépp ci Serigne Saliou Touré xamuñu ko sax nak waye bëgg rek mu nekk modèle pour ndaw ñi pap yenn euh, yalla fël Serigne Touré bu ko défé mas mën nañu ubi bu mu ci 88 628 37 37 ñu jël quelques personnes rek 88 628 37 37 mën ne ma waaye message aussi normal wala WhatsApp ci 77 341 50 70 boobu mooy suma numéro 77 341 50 70 da ngeen ma waaye message normal wala WhatsApp incha allah. Pape ay ca waaw. Euh, suñu saa yu tur yi yàlla na ko yàlla bàyyi ñu ko suñu kanam bu baax a baax. Mhm. li nga Pape nañu di wax ne Sénégal moo nekk dëkk boo xam ni. Mhm. boo nekkee ak ñoom dayoo sëñ Saliou Touré man am na ñu bari ñoo xam ne umpal nañ ko. Mhm. waaye pap ci émission suñu mag suñu royuwaay ci te mën a jaare pour feeñal loolu feeñal yi nga xam ni borom bi subhaanahu wa taala mel na ko. Mhm. waaye feeñal yi nga xam ne liggéey na liggéey ko ak diggante moom ak yoonu murid muy diggante moom sëñ Tuubaa mhm. ak diggante mi nga xam ne mooy kër baax yi ak mu lay am di an ci da baax xam nga ku dem ba borom 40 ans fa ñëw di wax loolu ni kooraay sa yaram am na sawara xamal nañ ne ma ah. koo raay sa yaram arab na soo la pap mm-hmm. boo demee ba nit di wax loolu rek def naa sa martaba ci sa borom loolu réy na lool lool lool mm-hmm. waaye pap li ko ci li may loolu lépp mooy lan mooy jambar, mooy lan mm-hmm. ite ju kawe mooy lan moom mooy ki nga xam ni li ko sëñ saay waxoon nekkoon na ca pap jël ko ci lim 88 eh, la 628 37 37 ma jël kii man bii la wala boobu la nañu ñëw dimbali ma waay waaw ah, ca waaw kay waaye xaaral xaaral ma jël la xaaral ay ca salaamaaleykum waaw waaleykum salaam sëñ Pap ah ñu ngi ziar ñu ngi ziar ay bég bu baax a baax a baax ci ah jaajëf waay oh, kii day daa mel ne xam ne naa ko de defaatal 88 rek 628 37 37 daa defaatal loolu waaw foo nga ñëw yow sama waay nga dégg de oh, Pap maa ngi koy ziar suñ xaadim euh, mhm. yaay jéy mii mhm. doon woote mhm. moom sëñ Saliou Touré moo ko yar macha allah baax lool waaw di sama sëriñ di suma xarit nekk ndaw nag waaye man euh, yenn saa yi moo ma ne ma kaay jël lii ba pare borom baatin la itam nag macha allah 88 la 628 37 37 salaamaaleykum aleykum salaam ñi ñi ngi ziar sang bi ñu ngi lay ziar bu baax na ngay day sant alhamdulilah wàññi wàññi rajo bi tuuti rek waaw waaw wàññi nañ ko wàññi nañ ko waaw. jërëjëf. Uh-huh. ñu ngi rafetlu bu baax waxtaan bi. jërëjëf. ah ñun de wax dëgg yàlla sëñ Saliou comme ni nga ko waxee rek modèle la fii ci Thiès. dëgg la ndeysaan. ñu ngi woo fii ci marché Grand Thiès. ndeysaan macha allah. dëgg yàlla modèle la modèle la uh-huh. royukaay la. Uh-huh, parce que koo xam ne mën nañ daal góor yàlla ci góor yàlla yi la. wallaay wax dëgg yàlla nag ñu ngi rafetlu bu baax waxtaan bi am na solo. ndeysaan jërëjëf. di ñaanal yàlla nag yàlla yàlla guddal fanam bàyyi ko ba ci kanam ak kanam wax dëgg am na njëriñ daal fii ci Thiès te dañuy teewlu ay waxtaanam yor nañu ay vidéo yoo xam ne bu waxee rek nga xam ne kii mm, mm. borom cër la dëgg la ndeysaan wax dëgg yàlla wax daal ndeysaan ñu ne il faut ñu dugg daal pour leen loolu. ndeysaan dëgg la yàlla dogal sax allah mm-hmm. moom am nañ ci moom cofeel lool. dëgg sax ba yàlla dogal na sax dem nañ ba ci kër ziar ko ndax lan. ndax am ci moom cofeel. macha allah ak dëggu gi mu dëggu. macha allah waaw loolu daal lañ ci doon doon. ndeysaan ndeysaan macha allah jërë ngeen jëf jërë ngeen yàlla yàlla sàmm leen. amiin incha allah allah. amiin sax waaw mi ngi noonu moom ñëpp ko bëgg. waaw moom ñëpp ko bëgg bu ko defee Mas, mhm. ñi ñi ngi koy bëggee bu baax Mass ay ca Mass sëñ sëñ sëñ yaa jëy maa ngi koy bëggee nag bëggee naa sëñ bi. macha allah waroon ngaa kii waaye yow yow sama waay nga. <laughs> ay ca loolu la mën a mel mënu ma lu baax. Mhm. mënu ma lu am xam-xam. lu mhm. am koo xam ne am baatin ndax sëñ Saliou Touré ku mu yar rek ci loxom bi ci lan ci jàngaleem bi pap ku mu yar rek il faut nga nekk ku pap ni ku baax parce que nit bu yàlla defalee cër yàlla jox la benn cër koo mm-hmm. nekkal rek su borom bi di lay bëgg. Mm-hmm. nit ñi di lay bëgg waaye li ngay moo ko mooy lan di nga am xam-xam. Mm-hmm. waaye Pape Serigne Saliou Touré taxawaay bi mu am xam ne am na ko ci diggante moom Serigne Saliou Mbacké comme li ma ko waxee sànq ci dénk ne mi ngi ko dénkaane woon nga xam ne mooy ci daara ji Pape. Pape tey ñaata milliers ndongo la Serigne Saliou Touré yor bari na. ayca ñu jël kii. 88 628 37 37. salaamaaleykum. salaamaaleykum wa rahmatulah. maa ngi ziar waaleykum salaam. président baax ñu ngi leen di ziar. dolli ziar. ñu ngi leen di ziar ci débat boobu ngeen di def. ah jërëjëfati. sëñ Saliou moom man moom daal nit ñëpp man nañu koo jàpp ni mooy mooy xalifa général ci lépp. ndax sëñ xalifa général yee ko. waaw dëgg la nekk ci Thiès. <laughs> ndeysaan la. ah Baye Fall Kawsara Fall. waaw Baye Fall. Kawsara Fall waaw Kawsara man maa ngi fàttaliku am na benn turoo maa ngi ànd ak sëñ Abibu sëñ waaw mhm. sam dëkk Kawsara moo jiite daayir euh, boobu Kawsara bi ne Kawsara waaw waaw mos na maa ñëw nii ni sëñ bi ñëw ba si moom euh, tam xarit ba si suba waaw di ko ziar si mhm. ñëw ni ko sëñ bi dama laa bëgg a foto waaw billaay wallaahi ni mu jubloo penku ni ni mu toogee nii waaw noonu la ma joxe ndigal ma foto ko est-ce que ndeysaan moom Serigne Saliou Touré bii laay wallaay tulaay ak Mouhamed dëggu dong dëggu dong lu dul dëggu daal gëmu dëgg la ndeysaan tey boo ko doon invité si dara waaw allo waaw waaw wér nañu déglu mu wóor ne la bu ñëwee du la wax lu dul yàlla neen yónente neen Serigne Touba nee na waaw hmm. moom sëñ Saliou doog gi si loolu déedéet ndeysaan fii xam ne tey fi laa jën kër bi kër ma maram waaw man naa ni màggal gi fi jëkk def moom moo sof loola. ndeysaan ndeysaan. Mhm. waaye bi bi ni ñoom nekkuñu yàlla neen yónnante nee na. waaw mhm. sëñ Saliou boobu la gëjën kër mu maram. est-ce moo tax li ngeen wax si moom man mi dëkkan Kawsara tuxu si kër mu maram di kay faal. waaw. parce que borom taam na lu bari lu ma xam si moom. wallaay dëgg la ndeysaan macha seen day seen émission bi dama ko teel woon a yëg waaye kon man day jaar muy ñëw ba si rajo ba. ndeysaan dëgg la ndeysaan ndax Best FM boobu man li ma ciy déglu macha allah. Zik FM waaw. Sud FM ni ma koy ah, déglu macha allah ëmm ëmm mi si animé sama xarit la man daal sëñ Saliou daal yàlla na ko yàlla gën a wéral li ngay wax ni sëñ Saliou Mbacke kar bi mu dogee waaw uh-huh. man maa ngi woon Touba ndeysaan waaw ñëpp dañ ni moom moo koy jiite moo koy jullee ndeysaan ndeysaan kon dëggu ko sëñ Cheikh Abdoulaye hmm, waaw na na defaat 88 rek 628 37 37 dafaatal noonu digga dugg defal 88 628 37 37 Euh, moom euh, bu ko defee yéen ñi may woo sama numéro. Mm-hmm. waaw yéen ñi may woo sama numéro. 70 mm-hmm. bii 894 bii envoyé message rek envoyé message. Aïcha 88 628 37 37 salaamaaleykum. attends waaleykum salaam. ñu ngi ziar Serigne bi. Serigne bi ah tey tooyal ngeen xol yi de. ah ndeysaan ndeysaan. maa ngi wootee kë jëmbu Ndiaye kuy naan Serigne Saliou Sy. ndeysaan Serigne Saliou Sy macha allah. doomu Baye Samba si mu Serigne Saliou ku ne xam na ko ku ko dégg ku xam Serigne Saliou Touré xam nga ko. ndeysaan macha allah ndeysaan. xaw ma ku ko miin de waaye képp ku xam Serigne Tou Serigne Saliou Mbacke xam nga Baye Samba si. ci kër jëm ndeysaan ndeysaan mm. mm-hmm. waxtaan bi nag suñu xol daa tooy rek. ndeysaan. Uh-huh. ndax loolu nga wax ci digganteem ak El Hadj Abdou. ndeysaan waaw. lu leer naññ la. ndeysaan dëgg la. bu loolu moom lu ma leer naññ parce que man mi toog dama moom mu nettali ma ko. ndeysaan ak sa kon baax na kon. kon yow moomu. ndeysaan. li nga wax. ndeysaan fi ñu ko teg foofu la. Mm-hmm. dëgg la jërëjëf ndeysaan. yoon nag mooy suñu yaakaar te li ñu ci suñu kër sax ndeysaan mooy ñun suñu waajur la. ndeysaan ndeysaan suñu waajur la. ndeysaan waaw. sama xol daa tooy daal dinaa bàyyi foofu daal bàyyi ba ci kanam. ndeysaan jërëjëf. jërëjëf jërëjëf ah macha allah ndeysaan. waaw jërëjëf sëñ Saliou si jërëjëf. waaw ndeysaan ndeysaan. ay ca 88 ngeen def rek 628 37 37 léegi Mass Mass mm-hmm. <laughs> kii nee na boo mënul dugg da xoolal euh, envoyé envoyé leen message yéen ñi mënul dugg dinaa ko lire envoyé message ci suma numéro ci 77 bi 341 50 70 envoyé numéro rek 77 341 50 70 ngi ziar. ah Baye Baccy bëgg nañ la. papa ñu lay ziar waaye ma waaw. ah jërëjëf Baye Baccy. ndax euh, ki ngeen di waxtaan. ndeysaan waaw. damaa dëkkoon ak moom. ndeysaan ndeysaan. foofu laa dëkkoon ca wetu jàkkay moo di sax jooju. Ah, ba fii ñëw. waaw. waaw maa nga foofu daaw ma jóg ca jàkka ja. Hmm, nga ña ko wutaloon nekk. ca kër sëñ Cheikh Alaaji Kan. waaw. foofee la am néeg. te machine wal ba ne fa woon. ah macha di ab commerce bu mag woon ne di jaaye marché mag. kër googu lañ ko jëkkoon a dalal. jox ko comme néeg. ndeysaan ndeysaan ñu daataam kër googu. dëgg la. man mii. wallaahu mhm. ah xam naa ci moom lu bëree bëri. ndax ah, ah, Baye Matar Guèye. waaw ah moom moo doon defar jàkka ji. waaw ba mu ko defaree ba mu noppi. mu dem jébbal ko. sëñ mhm. Abdoulaye. ndeysaan ba mu ko ko jébbalee. waaw. a ah, mu daal di koy jël daal di koy yebal sëñ Saal Touré nii. ndeysaan ndeysaan. booba nag man suuf tànk laa waaye booba moom it. Ah, du mag lool. ndeysaan ba loolu amee. waaw la ba nga xam ne ñu soog a sax. ñu bëri daal di meroo ndax gan la te xamaguñ. kii mooy kan. ñu bëri dañ daal bu dee bu dee julli. du ñu ñëw. ndeysaan ndax dégg nga maam nekk. waaw kuy liggéey ko ba nga xamuñ mbir mi nu mu demee. ndeysaan est-ce que mbirum baatin la. ah ba yàlla defee ñu ñu ah, yabal ko fi ñooñu. waaw gerte jumaa ji ba ñu bëri jàkka ji daawuñ yow. waaye ba mu fa ñëwee ne man tey. waaw ndigal la ma fi ba ndigal la ma fi andi. te bu soobee yàlla ndigal lii ma fi andee. danaa ko dox bu soobee yàlla ba mu mat sëkk. ndeysaan waaw ku ma meree wala tax tax ñëwoo yi. ndeysaan foog naa yéene. waaw ko def. ndeysaan ba matal ko ba nga xam ne waxtaan waxtaan ba ci yàgg nit ñi ñëw. di ba ci yàgg xam ne kii mooy kan. waaw mujj dégg maam kenn mënatu la xaj ci jàkka ji. ndeysaan bu fees sell. ndeysaan ndax ah, ba leen wanee nag xam ne ah man nii. ndeysaan nii laa mel. ndeysaan te ak dëgg. ndeysaan ak nekk fi tey yàlla ak yonent bi ndax ak Serigne Touba. ñëpp xam ko nag xam nga loo xamul woon rek. waaw ñëpp gëm ko topp ko nag. ba mujj saawaay jàkka ji di riir. wallaay ndeysaan kenn du fa xaj ba Sëñ Tuubaa. ak sa man fa laa dëkkoon foofu laa newoon. ndeysaan wallaay yàlla xam na ko ba joxoon naa ko sama doom sax. ndeysaan waaw waaw mu doon ko jàngal alxuraan. ndeysaan macha allah wallaay wax xam naa dama faa mujj ñëw. ndeysaan waaw dëkk bii waaw balaa jullee it juma ajuma bu jot balaa jullee macha allah macha allah waaw kay jërëjëf waay kontaan nañ torop ci émission bi jërëjëfati wallaay ku dugg ah, amin incha allah sa wér amin incha allah amin incha allah ndeysaan amin bàyyi bàyyi bàcc ngi noonu mhm. sëñ Saliou Touré ndeysaan mi ngi noonu gis nga tàmbali goo gis rek tàmbali tàmbali tàmbali moo mel noonu maas moo tax bu xatee rek bul décourage waaw nekk ci rek waaw Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, waalaikumsalam. Ah, profesor mana dijar? profesor. Wai dengan aku wai ini. Profesor, ini lebih. Profesor. Dengan di diri barak barak ini sama. Masyaallah, ini lebih barak. Jago sistem tak mau kaman nyebut wai ni. wow. wow dapat jap wow. Wow wow. Ina bonu rafet lo emission. Wow. bi. Waaw. Jëmu bu mag. Ndeysaan. Jëmu ted. tedd. Ndeysaan. Jëmu jo xam ni ay martabam. Wallahi tuuti nañ sax wax. Wallahi ndeysaan. suñu borom ak Sëriñ Tuubaa mi ko takkal daraat kese ko xam ndeysaan dëgg la daraat bu mu am ndeysaan Sëriñ Tuubaa ko takkal ndax liggéey ba mu liggéey ak taalibe ba mu doon doon daar taalibe ndeysaan cey mu nekk te un scientifique boo xam ne côté scientifique na nga ko wax ndax boo dem fu dem ba waa NASA di seet waaw waa NASA <laughs> NASA waaw di la seet si kooku di la seet ah, ñun ñun ñun ñun dañuy fa rek kooku Pape kooku c'est l'un des meilleurs scientifiques wallahi lu mu la wax fi ak étoile waaw ah. xam-xam boobu kenn du ko wet doonu weppee seey ay leeru suñu borom te nit du toog mukk ba xam ko ci moom ndax oyofam ak taal wallaay wallaay wallaay kenn sëriñ Saliou Touré ndeysaan oh. suñu borom yokk ay fanam ndeysaan ndeysaan bàyyi ko yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg ci kanamu Cees waay amiin insha allah bég nañu ci moom am nañu fierté ci moom c'est un exemple à tout point wallaahi toog naa moom ay yooni yooni yooni yooni polytechnique en 2002 animé suñu conférence technique annuellement chaque année yi ñu daan def. ndeysaan ndeysaan xam naa ko bu baax. ndeysaan jaar naa ko yaa même pas un mois mais dama ne leen kii. ndeysaan ah kenn du moom de. wallaay dëgg la yàlla na fi yàgg. ak saa yàlla na fi yàgg ànd ak wér. ndeysaan amiin jaar naa leen baax. oh waaw yow Pa Babacar mii ëppoon ñu dugg di. ndeysaan Mass. Pa Babacar mii ëppoon naa ba ñu dugg. Eh, mhm. bu ko defee Mass ah eh, ndeysaan xam nga Mass gars yi nag ci bokk borom kii nee na émission bi am na solo. yàlla la guddal fan yi te yokk mën man bi 76 127 76 127 ba da leen ci boole tur bi yéen ñi may yéen ñi may envoyé message da leen ci boole seen tur yi bu ko defee ñu jël mbokk mi 88 la def 628 37 37 salaamaaleykum. salaamaaleykum. ah maa ngi ziar. mu ngi ziar sëñ Pape. ndeysaan sëñ Xaadim mu ngi noonu. yaay jéem waaw ñu ngi ziar xanaa di bég rek ci waxtaan wu am solo bi. ak sa ndeysaan. wax dëgg yàlla ñu ngi ciy kontaan sëñ bi moom lu ci waaye wax rek ñun ko ko waxal wallaay ndeysaan ndeysaan sëñ mu xam naa ne mbiram boo ci wax daa du jeex du doy déedéet déedéet waaw du jeex du doy waaye sëñ bi dong boo duggoon diggantee ak waaw xam-xam rek daanaka doy na sax wallaay ndeysaan ku yëkkati loxoom ni réew mi kenn rawu ma fi kenn rawu ma fi waaw kenn doom ba samay sëriñ ba bu doon xam-xam du topp kenn <laughs> bu doon xam-xam du topp kenn waaw noonu la ko waxee waaye daal sama xam-xam gisuma sama judd sëñ Tuubaa rek laa gis allah waaw sëñ bi ngan lan ngan nu <laughs> ma kenn raw ma samay sëriñ te bu ñu koy wax sëñ Saliou ngi fi daa ni xam rek du ma topp kenn wallaay waaye ni gisuma sama xam-xam gisuma sama judd sëñ Tuubaa rek laa gis allah waaw koo xamante ni taxaw na Macky Sall mii ni ko. man aw naa ci liggéey xaw ma administration yëpp. waaw mosuma xam sa soxla. dañu ba ñii ma nekkee président même ñoom yow laa xam koo xam ne bi ma fi ma yëpp mosuma xam mosuma xam sa soxla ne ko nag dama bëgg nga wut koo doxale suñu diggante loo loo bëgg nga wax ko ko ma defal la ko mu ne ko man nag li ma bëgg sëñ tubaa ngi ma koy defal la moom allah akbar xam nga kon kooku moom wax dëgg yàlla kooku moom lu waay wax ci moom rek uh-huh. du doy allah li ma bëgg sëñ tubaa ngi ma koy defal amoo waaw waaw te amoo ko ni ko li ma bëgg dañ ko li ma bëgg amoo ko te sëñ tubaa sëñ tubaa ko am tamit ma koy defal waaw bon nee na it moo wax it ni mosuma lekk dërëmu nguur mhm. mosuma lekk dërëmu nguur loolu nag wax dëgg yàlla boo doon natt ci sëriñ bu ko ñemee wax bëriwul bëriwul de mhm, mhm. waaw bëriwul kon kooku moom xanaa ñu ñaanal ko rek mu yàgg fi loolu te wér ñu lay sant di la ñaanal yàlla dëgëral la te taxawu la bu baax a baax a baax ci barke Sëñ Saaliu Touré amiin incha allah ngeen waxtaane ndeysaan amiin waay <laughs> jërëjëf kontaan nan torop oh, <laughs> oh, bi lii neex na de Mass waaw lii ci xol lay dugg loolu mooy ful waaw ci ci xol lay dugg bu ko defee Mass numéro bi ñu ne émission bi am na solo yàlla na yàlla guddal fan yi eh, bu ko defee <laughs> xam na ne xaaral xaaral ma jël kii 88 la def moom 628 37 37 leen daa bëgg a tàbbi ci jotaay bi salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. monsieur le maire Pape Thioune. waaw jaajëf maa ngi lay ziar. maa ngi koy ñaan ci barke Serigne mi ngay na la ko yàlla defal. miin waay miin. yal na la maa ngi lay ziar. Ah, waaw ndeysaan di ziar euh, maas kooki. maa lay fay baax ndigal donc di ziar euh, sama xarit sama doom lay Moustapha. waaw Moustapha waaw donc di ko ndokkeel ci bis mi ngi ci lune de bi quoi. waaw waaw moo noonu la noonu noonu baax na. <laughs> ko yàlla kattanal ko suturaal ko. amiin amiin incha allah waaw moo bi am na solo trop. ndeysaan te uh-huh. kontaan nañ trop ci waxtaan bi. Uh-huh. mais sama benn commerçant bi ngay def histoire bi. waaw nee na da ngay bëgg a jàngale maanaam doomu aadama ci lu mu mën a nekk bu mu xàddi. waaw. mais bu dee Sénégal nag dañ la dafa aay gaaf. waaw waaw aay gaaf waaw. waa mais nee na wax jooju noonu wax ju am solo la. <laughs> dëgg la comme nag noo ko comme xëy na boo defee émission télé wala nga def ci vidéo comme ça koy. ñu partagé ko dinaaj dina am solo trop. ndeysaan dëgg la ndeysaan macha am na am na solo. ndeysaan jërëjëf ñu bu baax. ak sa donc di ziar tamit waa Zik social. macha allah jaajëf mel ni président Sidat. ndeysaan Baye Karim. Ousse le roi Assane MRD. président monsieur le maire Pape Thioum. jaajëf <laughs> bëgg nañ ko de. le petit ah, waaw amiin na ko def non day am sax incha allah kasa jaajëf ndeysaan comme comme wax nga ko. waaw nee nga ci lu ci waaye mën a nekk ak lu mu mën a doon. waaw bu xaadi. déedéet kon jàppal foofu baax na. jeex na kon yàlla baax na ñoo ngi sa ginnaaw daal. ay sax bëgg naa de ndeysaan oh jërëjëf. jaajëf sama xarit ndeysaan. suba daal suba daal maa ngi invité ñëpp suba ni am jot te di ma déglu fekk ma buntu jàkkay murit bu bu 9h30 jotee ma ak les jeunes leaders gëm sa bopp ñu dugg marché Grand duggu dugg garage waaw bëgg naa ngeen ñëw de ñëw leen. ñu àndandoo yéen jeune leaders yi waaw ngeen fekk ma foofu bu subaa ak jàmm incha allahu rabbi suba ci suba maa ngi foofu ayca salaamaaleykum man Baye Backe maa dellu si waat di nuyu sëñ Mass Kokki moom waaw Mass Kokki waaw waaw maa lay maa lay ziar bu baax a baax papa papa ñu lay baax baax macha allah seen émission bi. waaw ah. ah ñëpp ci kontaan. a a ubbi ligne bi. sax waaye waxtaan sax kon day loolu tax ah, mooy tax du ngeen mën a ubbi. loolu moo tax jërëjëf papa ah, macha allah di leen gërëm. jërëjëf jërëjëf. di nuyu nag. waaw boo leen ñi xam ñu ngi déglu. te bëgg sëñ Sall Touré. macha ndax moom sax amul mbañ. ndax ñëpp ko bëgg. bu ko amul rek moo koy jéem bañ wala diinat waaye moom ñëpp ko bëgg ndax ñëppam ak kullaan ak saay daal wallahi yàlla ñëpp gudd fan yàlla li di ñaan ci moom mhm. yàlla ko yàlla def mu dolli fee yàgg dolli ko fee yàggal dolli ko wéral ko ah lépp loo xamee ni nii mhm. yéene ko ko rek ah mhm. yéene na ko ko rek yàlla na ko yàlla may jërëjëf jërëjëf incha allah jërëjëf papa jërëjëf macha allah saakum la xeer Eh, eh, Baye Bathie c'est nañ ci moom bu ko defee Mass kii ma y a un témoignage que seul Macky peut faire sur Serigne Saliou lors du décès de sa mère Serigne Saliou lui a révélé ce qu'aucun être ne pouvait et ne peut dire mhm. Tout bi nag bëggoon naa koo xam kii nee na eh, envoyé na la ko dama don def ben CD rek ci Serigne Saliou rek mhm. ci sama crédit mom wa wa. wa wa mu ni bi may njëkk dem xel kom dañoo def déparé jàkka yi murit Serigne bi ñaanal ñu ñu dem def fa douze jours ñu ci sama xarit yi ñew ba cour ba Euh, ay deux heures du matin ñu ni ñoom dañuy wàcc ñibbi ma ni leen man jàkka ja laay wa falaa falaa déparé woon mhm. euh, waaw xam naa Papa Babacar Seck jaajëf mhm. <laughs> Papa Babacar Seck ngeen la euh, waaw waaw waaw waaw Marème Ba Marème Ba nee na amati na solo donc kenn du la bàyyi <laughs> waaw duubu Thiès nee na woo ma waaw duubu Thiès yow eh, teg maa woo rek ah Double ah, Thiès Serigne Saliou Touré yàlla na fi yàgg lool te wér. Uh-huh. Euh, macha allah waxtaan am na solo 77 307 47 ak la ca topp. Uh-huh. kii mu ni Pape euh, maa ngi ziar xool yëpp sedd na macha allah Serigne Saliou Touré de man dama ko bëgg barke borom Touba yàlla na fi yàgg te wér waxtaan yu am na solo loolu man la Serigne Diagne maa ngi teewlu fii ci angle Serigne Fallou. ah Serigne Diagne daa jëf ci yow. Ah, na ziar xool yëpp sedd na 77 490 14 ak la ca topp nee na xool yëpp sedd na. ñu nit ñu nit suñu xol sedd na bu ko defee kii nee na Pape macha allah man maa ngi doog a xam Serigne saali ture ndax yow wallahi ah jërëjëf. moom jërëjëf ki nee na Pape maa ngi rafetlu émission bi su su ma la déggee sama xol day sedd numéro 77 431 20 ak la ca topp nee na su ma déggee xolam day sedd bëggoon naa xam tur bi nag ah, waaw kii mu ni jaar naa la Pape waxtaan bi am na solo kontaan nañu de 77 901 ak la ca topp ah. Eh, kii mu ni salaam jërëjëfati yàlla na leen yàlla fay maman Mbaw yaayu Ousse le ah jërëjëf mama mbaaw yaay ouse le roi Ibou Sëy suma jakarta man waaw Ibou Sëy nee na man la Ibou Sëy Ibou Sëy sama xarit daa jëf waay safar jakarta soli allah yaa mën a wax lu baax te baax euh, ci xol amal jàmm hmm. nuyul ma maase Njoba Junior Njoba Junior jaajëf waaw bu ko defee maa lay bëggee waaw Modou Dieye nag mooy suma safaru jakarta uh-huh. Modou Dieye moom moo may yóbbu fu may dem euh, fu may dem rek moom moo may yóbbu Euh, yor Jakarta yaa ma gën a xam Modou bëgg naa ci yow jaajëf. Uh-huh. nee na waxtaan bi am na solo mi ngi doon bàyyi xel. kii moom nee na salut bëgg euh, waaw bëggee naa la de waaw nee na bëgg naa la de waaw Babacar Dione Medina Fall mu ni si on a échoué dans la vie on ne laisse jamais tomber on doit continuer pour réussir jaajëf. Euh, bu ko defee Cheikh Ndiaye Salihat Couture nee na salut Pape namoon naa la maa ngi mi ngi neex ba ba ba xabru Cheikh Abdoulaye Yakhine wa Salihat Couture yëpp chef Salou Pen c'est Cheikh Ndiaye nuyul nuyul nuyul ma maas gars yi nee na lay ziar ma lay ni ba aussi waaw euh, bu ko defee mm-hmm. Mass mm-hmm. Euh, kii moom nee na yàlla Serigne Saliou Touré yàlla na fi yàgg lool ci wér macha allah waxtaan am na solo yàlla sëñ bi fay la de la part de papa Togola depuis Grand Thiès mm-hmm. ah jaajëf bu ko defee Pape Babacar Seck bég nañu gars yi tamit ñoom ndeysaan suñu xaarim yaa jëy nee na am na solo lool yàlla xam na ko moom moom sama sëriñ la waaw moom da lay ñaanal borom bi dafa la ci tawféex te sëriñ Saliou Touré nag moo ko defal waaw bu ko defee moom maa ngi bég ci moom bu baax a baax a baax suñu xaarim yaa jëy tafsir mi xam na sëñ xaarim yaa sëñ xaarim yaa jëy tafsir waaw tafsir suma copain moom nee na mi ñu doon déglu moom Mara ak Jibi waaw nee na ñu ngi ziar bu ko defee macha allah waxtaan bi am na solo lool yàlla xam na ko yàlla nañu yàlla fayal suñu mag ñi yéen it yàlla defal leen jàmm te fayal ñu leen bégal ma Mass Koki aussi mhm. jaa jëfati bég nañ ci yow général góor gi jàlloo ñu ngi bég loolu ci yow euh, Khadim Soumaré waaw nee na pa waxtaan am na solo jërëjëfati moom waroon na ñawal sama tisi boobu ñoo may mhm. waaye Khadim sama jox nañ ma fi jesner jox nañ ma fi masin riche ngi addi Serigne Saliou mhm. euh, waroon ma ko ñawal def ko addi Serigne Saliou Touré waaye Serigne Khadim sama yaay moo ko jël dama xëy suba mu ni ma pap masin bi jël naa ko waaw xam naa nag beneen dina ñëw boo xam ne moom lay sol ci onze bisu bu ko defee euh, Serigne Saliou Dieng Porokhane Ibou Yadd jërëjëf ñu ngi lay bëggee bu baax a baax ñu ngi lay ñaanal Ibou Yadd nga yàgg fi lool te ànd ak wér ndax itam sa dund njariñ rek la Serigne Pape ñoo ngi lay ziar ah waaye ay bu waa Thiès xamoon ni ki nu am góor yàlla gënu ko te gënu koo tedd macha allah euh, Mamadou Dieye jaajëf bas ñëw na seen euh, waxtaan bi am na solo Serigne yàlla na fi yàlla yàlla na ngeen wér Babacar Sall Sofraco ah yow dafa kii waaw man day bas damay man de man damay dem bas tëj naa bu mu jokkoo gi bu yàgg yàgg. Mhm. waaw tëj naa ko bu yàgg damay dem eh, am na ñu may envoyé ay euh, vocal nag waaye vocal wax dëgg fa la mënu ma ko déglu. Mhm. Ah, Saliou jaajëf Saliou sama soppe Saliou mi ngi doon déglu ah Saliou mi ngi doon déglu ndeysaan bu ko defee waaw waaw waaw Fatou Fatou UVS moom sama élève la woon nee na mi ngi doon déglu Baye Sidi waa kii na sori Pape vraiment. tu m'as remonté le moral j'ai échoué au bac billahi que Dieu te protège Alhamdulillah. alhamdulilah Li rek lañ ci bëggone dé. ndeysaan waaw li lañ ci bëggone, déng nga mhm. waaw néna ma pap tu m'as vraiment tu m'as remonté le moral mhm. j'ai échoué au bac billahi que Dieu te protège waaw lii nag dara gën a koo rëy donc ku mhm. échoué rek jappal ta xamni bu kenn découragé bëggoon naa xam tour bi nak ndeysaan bëggoon naa xam tour bi numéro 76 942 51 ak la ca top. waaye loolu lañ ci bëggoon rek bu ko defee Serigne babu Koskas Serigne babu mangi Baye Sidi macha allah mam Saliou Touré dundam sagu wa Thiès la yagi fi lol teuer Baye Sidi jaajëf bu ko ndaysan euh da ngeen na bax yéen da ngeen na bax ñaanal leen mu sutura nak man képp ko xamni ne yaa ngi may déglu te nga kontaan ci bi nak ma ñaanal sutura àdduna ak alakhir lol rek lay sakku ci yeen da ngeen mako ñaanal mu jóge ci seen xol leer na bu ko euh tonto pap man la Ibou Sey Ibou Sey sama chauffeur Jakarta bi bangku ngi koy bégee góor bu bàyyi mi ngi don baye xel Fama Ñaa aussi mi ngi don baye xel bu baaxa baax nday awa ñu ngi lay bëggee waaw nday awa ana sa sa umpaañ ba jox ma bindaatal ma turam nday awa nday san moom dafa am euh, tàntaam la xaw ma tàntaam la xaw ma waaye moom daf ñoo bëgg léegi Ouz waaw daf ñoo bëgg lool euh, di ñu bàyyi xel bu ko defee waaw sukkuran jaziran Aminta Sarr waa Aminta Sarr daf ñoo bëgg lool ñu ngi koy bàyyi xel di ko nuyu Baara Faye aussi Baara fay nee na jërëjëf l'avocat de la société Baara Mari Touré yàlla na jël yàlla na nekk président euh, fédération sénégalaise bu football Mari Touré dégg Baara moom Baara moom bokk na ci ñi ko représenté fii Mari Touré yàlla na nekk président bu fédération bu football Baara Faye sama xarit euh, ko am taxawaay góor gi euh, Ibrahima Ciss mi ngi doon déglu Babacar Seck gaa yëpp ndeysaan mbay tal mbay mbay mbay kan Ngone Cheikh Ndoy Fatoumata soxna jaara sama cousine boobu ndeysaan mu ngi doon bàyyi xel xam naa ni kontaan nga ah aussi mi ngi doon bàyyi xel Coumba Amady baax kon kontaan nañu bu baax ah, ah waaw ndeysaan Coumba Amady Ba waaw ah, kon bëgg nañu ah, Dame Diop bébé Diop gaa yëpp bëggee nañ leen bu ko defee di leen ñaanal rek ngeen di am jàmm waxtu bee jot <laughs> nday awa kontaan naa léegi nag euh, directeur waaw yàlla na yàlla waaw gën a yokk sutura gi amiin incha allah waaw waaw waaw baara nee na maa di tur rek jaajëf bu ko defee Sidi Gadiaga di jëw non tafsir sama gaayan la <laughs> di jëwriñ Serigne Saliou Touré moom ma nga toog ma ngay bëgg bëri na lu ma wax fii mhm. moo ma ko jox mhm. waaw kamu kamu bu Pape Sarr nee na nu ko kamu bu Pape Sarr kamu xaritu Pape Sarr la moo tax mhm. maanaam kamu bu Pape Sarr nee na ñoom ñi ngi dëkk ak Serigne Saliou Touré ci quartier boo xam ne majoritairement Tidiane mais Serigne Saliou reste le personnage le plus aimé la plus respecté de tous bu ko defee Tafsir waaw waaw Tafsir bul mer waaw Tafsir wala tax muy mer Tafsir bul mel euh, Ahmed Ahmed Ahmed Diop jaajëf yàlla na yàlla fay barki Serigne Saliou Touré moom mi ngi doon bàyyi xel salut Pape Thioune waxtaan am na solo macha allah je ne connaissais pas Serigne Saliou Touré mais je vais aller le voir incha allah je l'estime déjà grâce à vous. Mhm. maman Nafi Kane jërëjëfati kontaan nañ ci ñëpp. Euh, dernier message bi mooy jeune leader yi nga xam ne man mii maay njiit gi. Mhm. suba incha allahu rabbi bokk ci mouvement gëm sa bopp bu buggaan ngay dani mhm. dama bëgg képp koo xam ne jeune nga te bëgg cee bokk bu suba na ngeen ma fekk buntu jàkkay murit bu 9h et demi jotee 9h kuy ñëw képp koo xam ne nar ngaa ñëw woo ma sama numéro 77.

Euh, ci barke Serigne Saliou Touré xaar leen ñu foofu dinañ fa ñëw dugg fa def fa prospection waxtaan a yéen kon képp koo xam ne bëgg nga bokk ci mbir mi woo ma ci numéro boobu ma joxe borom bi sàmm leen waaw bu ko defee ki na na yàlla sàmm aar la ci barke Serigne Saliou Touré c'est Baye Mor Baye Mor moo wax loolu Baye Mor ñu ngi lay ñu ngi lay encouragé jaar nañ la bu wér waaw tegal audio bi euh, bu ko defee sant nañ ñëpp gërëm leen maas looy tàggatoo waxtu yi moo jeex tàkk tàkk tàkk tàkk tàkk woowu daanu na presque mhm. donc di di nuyu gars yëpp rek ñi nga xam ne ñooñu doon bàyyi xel ah di ñuy envoyé seen message yi vraiment nuyu yi yëpp jot nañ ci di leen bëggee encore une fois di leen ziarat di ñaan yàlla lépp loo xam ne waxtaan ko fi rek euh, ci barke Sëñ Saliou Touré rek yàlla ko si yàlla def aw yiw surtout ko ci nga xam ne moom mooy àdduna bi yëpp si barke Seydina sallallahu alayhi wa sallam rawatina fi nga xam ne moom mooy ceeskaay di nuyu taalibeem yëpp nga xam ne ñu doon déglu ku ci mel ne ñoom xaadim ñaa ñu ngi dëkk ci Cité Lamine ñoom Mbay ñaa ñoom mama ñoom njaw mu ko gaay yi waa ci lamine yëpp maa di bëggee di leen jaar encore une fois ci teewlu bi donc di gërëm waa grand thiès waa anga suñ fàllu ñoom ñëpp gaay yëpp macha allah dañu doon bàyyi xel donc di gërëm taalibe suñu saa turé yëpp macha allah di len ñaanal rek borom bi defal leen tawfiix di nuyu war suñu desin maa ngi koy bëggee bu baax Oudou Roi ah di ko bëggee encore une fois Pape di gërëm Seydou si aussi tafsir sama gaay yëpp Seydou mi ngi doon bàyyi xel président Seydou bëggee nañ ko jaajëf ah, Seydou social gaay yëpp waaw di fa fatin demi lerek rek incha allah ñu bàyyi xel ñëpp insha allah léegi nak li lay li lay tagato ak yow deglu len li Serigne salou Touré ñaan len ngeen deglu ko deglu len maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi ñaan ngeen di ngeen ñaanal ma sa borom gën wéral gën ba liggéey bi nga bëgg waaye bëgg goo xam ne bala ko bala ñu ko jox mu joxe nag laay bañ dama bëggoon noonu ñëpp nuy kër kër yi ba bëgg ba du ay ci jërëjëf mi ngi nonu kon ngeen di am jamm ñuy am jamm ba euh, vendredi ak jamm insha allah rabbi di leen sant di leen gërëm vendredi insha allah ñu ñëw ci euh, spécial moom alaaji njegéen ndax moy borom 14 jours jërë ngeen jëf sant nañ leen bu baax gërëm leen DG Ouzou Roy suba nag invité naa la képp koo xam ni suba sama bis bi ma am ñëwoo mere naa la képp ku ma fekkul suba buntu jàkkee murit non ku ma nañ ku ma fekkul suba képp ku ñu sopp na ma képp ku ni bëgg na ma muy siiri gajagaak ñi ci des yëpp képp ku ni bëgg na ma bu ngeen ma fekkul buntu jàkkee murit suba 9h wala 9h demi ñu ànd man ak yéen dem dugg biir marché Grand Thiès def sensibilisation dem grand dem garage képp ku wax loolu te ñëwoo xamal ni mere la waaw euh, ma nee na kuma taxul lu juk bis bis dina ñew mané Serigne Cheikh suñu Serigne néna wa waa xaar rek no no bul bay yow bul bay no yow bul bay mais dama ni Serigne Cheikh sama professeur néna képp kuma jaral lu juk dina am bis nga soxla ma doma gis kon yeen soppé yi yeen ndaw ñi suba soxla na leen kon na ngeen ñew wo leen ma sama numéro 77 341 50 70 ñu waxtaane ko jërë ngeen jëf <laughs> Papa Thioune Zik FM. Zik FM à Dakar et au Sénégal, sur le web, www.zikfm.sn. Zik FM, partout dans l'univers. Programme Shalem Abwasi Rizalem Yau ya bali fem zige fem Gis nga manila je tem Je examen